Yeah. sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min sheytaan rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatini a'uuzu bika rabbi an yahduruni sadiq lisaani nawir janaani safi amaani wa zibraay mbokk julli di mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Mouhamed Bachir Cissé Baye Fall Cheikh Aziz Awo moo dellusiwaat ak yéen ci talaata yi sunu maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine waaye di siyaar kull koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog télé bi ci biir réew ak bitim réew mi yëpp nag waaye di jiital ci siyaar bi seex Cheikh Mountakhal Bachir di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool tam wér waaye noonu Baye Fallam bi tamit Serigne Amdi Modou Mbenda yàlla ko suñu borom yàggal lool tam wér waaye fayal nu nag jàmbaaram ji Serigne Cheikh Fall jëmb ak mboolem koo xam ne tamit nii rek suñu borom dogal na nga soloon dàllu lislaam waaye di leen baalu àq nag di leen ko baal ci koor gi di ñaan koor gi ñu ci diggee ci bisimilahi rahmaani rahim ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp luñ ci def rek yàlla na ko bi gërëm dooley sunu maam Cheikh Ibrahima Fall bàjji muridin ñu aada woon nag bi ñu tàmbalee liggéey bi jox sunu baay Jamil mu ubbi jotaay léemu ko ñu tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin baay Jamil kaddu gàngo bisimilah bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam awnaka yaa muhinu ka nastahin laa hawla wala quwata illa billah aliyul azim subhaana man yafalu maa yasaau bi maa yasaau wa lahul imsaau mbokk yi nu jàkkaarloon yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw réew mi di génn réew mi ñu leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu boobu nga xam ne mooy nuyoo islam nuyu nañ ko ñëpp kenn ku nekk ginnaaw nuyu bi tam ñu ngi koy siyaar siyaar bay yàlla ci moom kon di yéen dalee siyaare baat bari tam ñëpp ak yéen siyaar rawat na ci weer wi nga xam ne dugg na ko muy sax ramadan mm-hmm. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñaan lépp luñ ci def tàmbale ci yéene ak jëf yaa ngi waxee lépp yàlla ko yàlla ko ci rajo ko si Ibrahima Fall xasida yi euh, yàlla yàlla may ni mu jeex jàmm ak salaam ba fekkwaat ko ay déwén te wéral ko tamit ko ay njaboot gi mu boot ñëpp sëñ am di muudu mbele fall tam kasaalika moom njaboot sëñ Ibrahima Fall gépp sëñ askan muudu maam ci yëpp daaru xafoor kasaalika ak mboole ñamboot ñëpp parce que ñu ngi lay nuyu baax baax di lay fay bu baax ñu lay fay di santaa ci taxawaay bi ñu itam sëriñ gom nga ndey santur nag ko baax sëriñ gom diwaanu murit mm-hmm. di ko xam wax dëgg yàlla euh, ku ku ku jàmbaare ku murit li gën a gàtt murit mm-hmm. rek li gën a murit ko pastéefu yàlla ngi lay baax baax ginnaaw nuyoo bi sëñ Ousmane Diouf sama waaye moom itam maa ngi koy siyaar baax baax ndeysaan maa ngi koy siyaar Ousmane eh, te xam naa moom a gis xam daal di xam naa di daal yàlla daal mooy buur waaye ma rek siyaar naa ko xanaa tey dana tuub xam naa ne rek maa <laughs> ngi koy a baax rek di ñaanal ñëpp nag ñi nga xëy ñu ngi bàyyi xel kon nii ñëpp di def ñaan nag eh, tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim dem béykat ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla na sëñ bay yónnal lépp ci rafet ko dala jëfal ko ba jaa ngeen jëf amiin barke Seexul na sëriñ bi yéwénal lépp waaye di siyaar bu baax nag Alaaji Mbàkke Fay jëwriñu Ndakaaru ak li ko wër waaye di siyaar nag ñu ñu booleel ci jotaay bi waaye ndeysaan sëriñ eh, Baye Cheikh Balla Samb eh, naa Jibril Ndaw sëñ Mbàkke Mbóoj eh, Cheikh Moustapha mi nekk ci régie bi waaye di siyaar bu baax nag maam sëñ Masayer Thiam nga xam ne yàlla dogal na muy suñu cadre te di ko ànd ak ñun saa su nekk nag di ñaan suñu borom defal ko toofeex waaye atumaan nag ñi nga xam ne moo nekk ci décoration bi ñu koy siyaar bu baax di ko ñaanal toofeex mu mel ni nag tele bi ñu fi nekk ñëpp nag ñoo leen di baal àq bu baax nag waaye nag di leen ko baalu di ñaan suñu borom defal tawfeex te koor gi doon koor goo xamante ni yàlla bu mu doon suñ mujjantalu koor eh, ni ko suñu bàyyi jame waxee ah, mu mel ni nag ñu ànd ak ay jëmm yoo xam ne eh, kenn ki ñoo ngi koy wax Serigne Ngom waaye nag ñu duppeeku Serigne Ngom diwaan nga xam ne eh, maanaam mm, turandoom bàyyi jame ni ñu ko waxee léegi rek moo nekkoon ki nga xam ne moo doon représenté maanaam xalifa général des mourides fii ci Dakar ñaan nag suñu borom defal ko tuufeex dafay ko mbooleem lu mu mës a liggéey Serigne Touba rek yàlla na ko fekk ci bàmmeelam barke Cheikh Khadim ah, ki ci des nag di suñu xarit di suñu soppe di suñu jëwriñ ah, di suñu lépp di sëñ Ousmane Diouf Zikrullah nga xam ne yàlla dogal na suñuy jotaay maanaam miin nañ ko ci lool moom mu mel ne nag di ku jàmbaare di ku baax di ku yaatu ku yaatal ah, mu mel ni Serigne xam naa da ngay nuyoo mbokki taalibe yi rek bu ko defee ñu jàll ci li ci des ci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 xalifa sëriñ Assane Fall yàlla yàggal ko wéral ko mm. ak mboolem xalifa généraux yëpp mm. noonee la ñuy nuyoo suñu kilifa yi nga xamante ni moom lañ bokkal jotaay bi bu mm-hmm. nuyoo sëñ Basiiru mm-hmm. nuyu sunu baay bi sëñ Jamil mm-hmm. nuyu sunu maanaam sunu bokku taal bi nuyu nañ ñëpp daal bàyyiñ kenn yarax gamu ma mhm. ña nga xamanteni la bayit ñu leen ciar mhm. di leen ndokkeel baax baax ci wër wi iya. bolem recc recc bo xamanteni mësoon nañ ko ci def yalla nañ ko yalla jéggal bolem tuyaabu buñ mësa def yalla na ko yàlla ful da defal ñu ci ay tawfiix yi yaatu yaatu amiin khadim ma sha Allah euh lolu tawfiix na lool yalla nañ ko suñu borom boole nangul euh barik Cheikh Khadim euh mu mel nak noo ngi siyaare bu baax nak euh directeur port autonome de Dakar ak eh, ñi nga xamanteni ñi ñu ngi yeewoo port ñëpp nak ndaysan waaye di siyaar suñu jigéen suñu xarit eh, soxna si Siga Diouf di ñaan suñu borom defal ko tawféex nga xam ne bañ waaj a ñëw léegi biróom lañ jaar ndeysaan waxtaan waxtaan bu yaatu eh, di siyaar képp koo xam ne rek yàlla dogal na ngay yeewu poor waaye nag di leen baal ak di leen baal wax eh, di ñaan koor gi suñu boroom nangul ñu ko bàcc Cheikh Khadim mu mel ni sëñ Ousmane Diouf xam naa nag ndeysaan nga nuyoo mbokk taalibe yi rek waaye ni ñu koy faral di waxee saxaar moom bu jógee gaar day korne mu mel ni nga am loo rek ci turu yàlla nga xam ne sa tur yàlla dañ koy kontaanee lool nag ndeysaan Baye Jamil di ko wax léegi bu ko defee nga nuyoo ak mbokk taalibe yi bismillah sëñ Ousmane laa ilaha illallah laa ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا لا إله إلا الله فلا إله إلا الله ربنا لا إله لا الله إله إلا الله برم دار خفور لا إله إلا الله منصور فال أبو رجال الله لا إله إلا الله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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل سخر رفعل جن يا أبو العفل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله نيدو سن فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا فلا إله إلا الله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 illallah la ilaha illallah di Cheikh Ibrahima Fall macha noo ngi jéggul bu baax euh, te di ziyaare mbooleem ñi nga xam ne sama borom dogal na ñu nuy seetaan mhm. ci biir réew mi ci bitim réew mhm. te di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di ñaan ci baaxit ci darajey Serigne Touba. Mhm. Cheikh mun Muntaxa sunu borom yàggal ko fi. amiin barke Soxna Xadim. di siyaare baax Serigne Amdi Modou Mbend. di siyaare Serigne Sidi Mbacke Serigne Ibrahima Ndar mi fi nekkal Serigne Gaawaan. Mhm. di siyaare Cheikh Modou Mamoun sunu bunt ci Serigne tubaa ca Daaru Salaam. Mhm. di siyaare sunu maam Omar Dia mi fi nekkal Serigne Ibrahima ja noo ngi lay siyaare baax sëñ Basiru ndeysaan ñu ngi lay fay bu baax di la jaajëfal baax di di la wax ne yow moom ni nga ko waxee rek yow moom suñu diggante mm-hmm. wax dëgg yàlla sëriñ bi rek la moo tax sunu jataay yi ngi bëgg a bari ñu ngi ñaan sëriñ bi yàlla na gën a bari ci barkeb Cheikh Rafal di siyaare baax sama baay bi ci mm-hmm. sama wet mm-hmm. baay Jamil nga xam ne moom moom baay Fall yëpp a koy bëggee muy sama baay boo xam ne wax naa la ko léegi nee la dem naa ba sërif loo dëkkam tuddal ko yàlla muy ku baax ko am ne boo xoolee jëmm ji rek da ngay dolli ko waat waaw ci sa digg ak Cheikh Ibrahima Fall loolu li may wax ñëpp xam na ne dëgg la ma mm-hmm. ngi ñaan yàlla gën a guddal fanam mm-hmm. beneen ay cëram maa ngi jégalu baax nee na damaa xaw a dugg ci maa ngi koy tuub mm-hmm. dinaa ñëw tuub si incha allah dañoo xaw a gëj a gise ma fi ñëw yëpp day fekk doon fekkante di siyaare baax sunu mbokkum taalibe mi euh, moom it di ko jaajëfal euh, sëriñ Baye sëriñ Ngom di ko siyaare baax di ko ñaanal tawfeex moom it di siyaare waa télé bi ñëpp rek di ci jiitali sëñ Mbàkke yu fay di ñaan yàlla guddal fanam wéral ay cëram di siyaare soñ maam soxna maam say sunu wëllëre wu nekk ca France di ku baax mhm. eh, di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex moom it mhm. di siyaare bàjjen ma manta ja sëñ eh, ba mboolem ñi ma bokkal sëriñ gaawaan ñëpp rek mhm. ca daaru salaam ñoo ngi leen di bereb siyaar di ñaan koor gi yàlla na ci dugg jàmm génn ci ak jàmm ci darajey sëñ Tuubaa te luñ fi woor mbaa ñu jëf ko fi yàlla ko sëriñ bi nangu ci darajey Cheikh Rafal Baal Mouridine jërëjëf sëñ Basiru kon ñu diggaat kàddu gi incha allah macha allah Cheikh Ousmane eh, mu am solo lool nag waaye yàlla dogal bokk ci Eh, maanaam kuréel goo xam ne xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine lañ koy wooyee waaye mu mel ni kuréel googu nag eh, maanaam am na kenn ku bokk ci ñoom eh, maanaam muy Cheikh Ndoye laa nga xam ne yàlla dogal na sax waroon naa teew ci jotaay bi waaye nag ay tënk-tënk ak wàllu xeetu taxawaayu yaramam moo tax sax xëy na mu mujj maanaam mu mujj joxe ngànt ñu nangul ko ko loolu nag mu mel ni boo fi teewee sëriñ ñi teew fi ci jaaree ci sëñ Cheikh Niang Baye fal day mel ni maanaam day mel ni mën ngeen ko yóbbaale géew euh, mu mel ni Cheikh Ousmane euh, maanaam euh, maanaam Cheikh Ndoye zikrullah maanaam taxawaay bi nga xam ne yàlla dogal na ko mu amoon ko ci tudd yàlla te xëy na nag mu seq kook moom loolu maanaam boo amoon loo ci doon indi ak taxawaay bi suñ borom dogal mu am tey maanaam ana lan lay doon waaw kay alhamdulilah bisimilah barke borom Tuubaa jërëjëf sëñ Basiru ñoo ngi lay siyaar baax ci laaj boobu di njëkk siyaar it sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Serif asan Fall mi nga xam ne daayira boobu ngay tudd muy suñ daayira boobu di xidmatu maam Cheikh Fall te tuddkat yàlla yi bokk ko ci ñëpp nag ñi yëkkati moom la yàlla dogal mu ne ci suñ kanam moom sëñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Serif Assane Fall ñu gën koo xam ci maam Cheikh Zikrullah mm-hmm. Mm-hmm. waaye laata mu ko doon mm-hmm. soo suñ Cheikh Ndoye moomu nga tudd mm-hmm. yàlla seer na ne bi daayira bi taxawee mm-hmm. moom lañ jàppoon ne mooy président bi moom lañ ko faloon it man dajee ca mbaarum suñu Ibrahima Fall Darma ca Mbàkke ñoo ngi siyaare mboolem nag tuddkati yàlla yëpp rek euh, buñ limee euh, du ko mate mbaa ñin bëgg a tudd ñëpp duñ leen tudd te ña ngay fàtte mooy ña gën a nekk sa xol moo tax lim ñëpp day xaw a jafe waaye ñi ngi siyaar ñëpp rek suñ tuddee sëñ maam Cheikh Fall mii kilifa gi rek euh, dana mën a yóbbaale ñëpp sëñ Cheikh Ndoye moomu. ban dajee. ndax daayira bi euh, mi ngi amee ci ndigal suñu Cheikh jëmb. ñoo dajaloo àndandoo dem ca moom. fekk avant loolu. fépp fu nu dem man bokk. rajo bu ma dem mbaab dana bokk ci ñu mel ni yow. ne ma ndax amagum ngeen daayira. tuddkati yàlla yi. ñu mel ni di ko dàkkante la ci jamono jooju daayira mooy bu naafi comme bu jànkat yi. ba bi ma mujjee am émission ca télé rajo sëñ Cheikh Ndigal Fall boobu ca Touba Fall. Mhm. fa leen ma ko mujjee laajee yaakaar naa ne ca leen jóge sax eh, daayira ba taxaw. Mhm. ndax ko fa jaar ci tuddukat yàlla rek dañ la koo laaj. Mhm. bi ñu dajaloon yem sëñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàlla na ko sunu borom gën a doon leer. amiin bari bi ñu demee mu bég ci mbég moo xam ne ubbil nu. recevoir nu toog ak ñun daan ne. lii de maa ko waroon a santaane. ngeen am xelum. sëñ Tuubaa def ci seenum ngeen dajaloo ñëw. na ngeen xam ne maa leen ko sant leen ko digal te maa ngi ci seen biir. ndeysaan daal di wax ne. Mhm. ku ci bokk de moo ma jaaxal. Mhm. waaye daayira bi ku ci bokk dinaa la mat seere ëllëg ci kanam seere faal. Mhm. oh waaw loolu de moo ko wax. ndeysaan daal di ne maa ngi ci seen biir. carte membre yan defaroon keroog bas ñasa ngi toog dafa jël wu njëkk wi. moom sëñ Cheikh jëm bu def ci poosam. te delloowuñu ko ba léegi. daal di ne maa ngi ci seen biir. boobu it yàlla suturaal nu. bi ne sëñ Cheikh Ndoye président xalaat ko. mu ne déedéet ndax xam nga yooni moom ak taalibe rek la. mu ne déedéet ndax sëñ maam Cheikh. si kurulaa dafa noo bëgg ba fu ne ma nga fa te daayira bii bokk na ci kon nag nan du ma du fi ne man may may jiite dara waaw looloo waral sëñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Serif Assane ñu jiital ko suñu kanam mu mate ko lool nag mat ko sëkk di ci daj lu ne nag ndax kilifa goo xam ne nii Cheikh Rafal moo moo jur sa waajur nga mel nu ndax man mii rek da daan taal otoom di ma topp fu mel ni daaru mu seeg fu ne toujours mu wax ko su ñëwee ci tànt bu ma tuddee yàlla rek mu taal otoom dellu Euh, Bass Niass moom mu yàgg koo bége mm-hmm. keroog bi ñu mujjee toog mu ne ma yow sëñ Ousmane fu ne topp naa la fa mm-hmm. sëñ Bass mii kasaalika moo doy mi air bi muy yëngu mm-hmm. euh, ñàkk kàttana te man ko ma ba di ko yëngu ngir cofeel gu mu am ci suñ jëm yàlla dogal mu ne ci suñ kanam sëñ Cheikh Ndoye di koo xam ne nii moom lañ ca toftal moom lañ ca toftal muy kon vice président bu dee fii ci Ndakaaru nag sëñ mbay fay sama mag moom lañ jiital fii ci liggéey bi ñun nii nag yàlla dogal mu mu mu tegaat lépp ci suñu loxo mm-hmm. ñu ñu ñu ñu yor doxalin wi di ko doxal waaye lépp ci ak mbaaxam la waaye sëñ Cheikh Ndoye daal sañ Bas mm-hmm. ci gàttal rek mm-hmm. tudd nga koo xamante ne bii mooy turu yàlla ndax ku ne xam na ne jamono ji yaram wi sutante na waaye maam Cheikh Ibra teg na ko loxo ndax boo ko fekkee muy tudd yàlla doone dara da ko dal dëgg la te su wàccee kàddu ji ngay waxtaan ak moom ci leneen lu bokkut ak loolu nga gis ne wéradik yaram am na te saa su jógee di tudd yàlla moom doo mën a doo wax fenn ne kii dara dal na ko maa xalaat ne nag ku mel noonu su fekkee ne yàlla dogal na turam dundam gépp mu mu mu jox ko Cheikh Rafaal tudd yàlla ba toll foofu mu toll te àdduna lu ne mën a dabe ma jàpp ne ñun ñi nga xamante ne bii sama borom dogal na xëy na loola ak seegut ci ñun ñoo ngi ñaan suñu borom gën koo dellul ginnaaw ndax mi ngi tane baax mi ngi sant yàlla di tudd yàlla ñun ñiit suñu boroom musal nu ci lu lu baree baree bari ci cat yeeg pakk yeeg ndog yi waaye jàpp naa ne rek ku mel noonu nga xam ne nii tey maanaam symbole la ci ci yoon wi di symbole ci tuddkat yàlla yi ci Baay Faal yi waris na noo xoolaat bu baax a baax a baax nin koy jàppe ak suñu doxalin sunu digg ak moom ak li nu war sunu digg wax bi nag message la boo xam ne ñun la concerné ak kuy dégg sumu kàddu ak ku Cheikh Rafal ñor ak ku tur yàlla ñor te Cheikh Ndoye bégal na ñëpp ci tur yàlla bi nga ma waxee ne ma mooy ñëw ma bëgg nga ñëw moo gën a jokk tax sax ma sawar a ñëw waaye ginnaaw bi mu demee nii ñu xam ne kon teew nañ fi teewal ko fi ba kàddu gi si waat ci ñun lu luñ ci war a gën a yaatal des na ko gën a yaatal ndeysaan ndeysaan moom kay am na solo loolu Ousmane eh, ndax boo seetee ñu xam le ne eh, Cheikh Ndoye war a jege si rek Euh, ma xalaat la ci day mel ni xamoon ne lu mel ni dana mën a leer ci suñuy nopp ak mboolem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo télé bi euh, maanaam euh, taxoon ma sàkkoon sa jege si mu mel ni nag ba tey xam naa daal fédération Maam Cheikh Ibra Fall doxin yi ñu adopté ak i tamit maanaam ni ñuy jàppalantee sociale beeg yooyu yëpp dinañ ci ñëw waaye eh, balaa loolu nag xam naa Baye Jamin eh, maanaam sëñ Ousmane moom day kenn ci yow waaye li mu leeral ci mbokkum taalibe boobu di Seex Ndoye nga xam ne ni ma ko xamee nga xamee ko noonu rek la demee ndax njàng moom yaakaar naa bu mu juumul wéer a koy def ak kattan waaye day mel ni bu ci manqué rek maanaam bu amoon nu meloon nit mu daal di tàmbalee sooxe loolu ana loo ci ma nit Baye Jamin waaw jërëjëf sëñ Ousmane euh, Seex Ndoye wax dëgg yàlla mm. Euh, teewal naa ko fii euh, seetal naa ko teewoon ba tey sëñ Basiru Fall sëñ Cheikh Ibrahima Fall ku ne xam ne ne sikar moom euh, la la ci ëpp la ci jëf yëpp da sama jaraw mooy pasté pasté moo koy laltaay waaw te xam naa ne pasté lay sikare te xam naa pasté bi tam ànd naa ko bëgg ñaaree bu ñu àndee nag muy sàkku dara am nga ci am ndam. li ci des nag àdduna moo baaxoo noonu. Ah, yal na ko yàlla saafara. waaw ah, yal na ko saafara seen biir ko saafara ci saafara ko mbir. waaw solo mooy euh, xale yi sikkar. nañ bàyyi xel lenn. ndax bari na ci xale yoo xam ne ndax sikkarkat boo xam ni. mun a awu sàmpaal munoo ko sikkar. sàmpaal jàllee. yeneen daaj ñi daaj yeneen daaj daaju daaju baax yaa xeet yooyu. munoo ko sikkar munoo ko aw. te gone yi am nañ positif baax nañu guddi àllarba guddi talaata dañu nekk ci di yëngu bu baax a baax waaye ñu bari nag dañu kebatu rek si këruñu xebetoo ci bari waaye si kër ba ci daanaka jël ci air doon ko jël moo ko ngay kii muy awu muy laa ilaaha illa daal di kebatu benn affaire boo xam daal ay baat daal lañu kebatu loolu tam nag te kii tëgg itam moo itam loolu tëggkat boo xam ne sax xamul fu tëgg ñii ñi nit ñi dañu sikar dañu koy batu kii tëgg tëgg te jógul fenn jëmul fenn waaw waaw da réer réer réer réer rek nga xam ne amul loolu tam nga ne ci ba une heure ci ci guddi moo ko mu doo boole ci de boo ko tegee ci yoon moom yoonu kenn waaye nag loolu nañ ko bàyyi xel xale yi sikar nañ bàyyi xel xam ne kebetu ak sikar bokkul sikar mooy la ilaha la waaw am nay bërëxal nag yàgg baax waaw si Ibra Fall nangam kooku bën xal la waaye lu gën a wax moom nga xam mooy sikar kooku jabatu la loolu nag amul benn njëriñ kon ñii nañ ko seetaat bàyyi xel baax a baax ñii tëgg tam ndax war na ñoo xamante ni ñu ngi tëgg waaye mu xam ñu ngi tëgg réel li réel li réel li réel réel réel rek léegi itam ak sikar soo xam ne man li ma gisee gas ci réew mi loolu tam ah sikar soo xam ne amul wër amul kuréel amul kuréel sikar dañ daan dañ daan kuréel mhm. day ut kuréel waaye si kas xam ne tam daanaka gaa yi dañuy dañuy juyooloo loolu tam lu bees kenn xamul lu mu waaw xam naa xëy na kii na waaye loolu li ma tuur man daal defam nañ ko xame woon daal dafa bañ ci dugal benn bees benn kii moo gën tey sikar te bàyyi tey tëgg bu njee tëgg te du seet mën a jàng tëgg ba mën a tëgg waaw li ci def tam am na loo xam naa lépp am na loo xam bëgg la ci ànd bu xam damay gis les gars yi de solo noo xamante ni mm-hmm. dañoo toujours tollu Baye bu wala tollu Baye Fall tollu tollu tollu kii la ñuy simb simbkat la mm-hmm. da gis ñett ñu ànd wala juróom du du ñu xemeemu ndax tollu Baye Fall lu ñu gën a bari mm-hmm. moom dañuy xemeemu waaye am na ñu solo noo boo xoolee ñett bu ñu àndee képp ay simbkat képp la lañu simb ndax mbaxana moo sa boobu kër buus ba ba ëgsi fii dégg nga yor ci ay yoo xam ne dafa ñëw ñëw ba ëgsi ci ay xaya ak ak yeneen yoo xam ne kenn man boo leen xoolee wax dëgg yàlla bu fekkee xam nga bàyyi wala xam xam ne la ca des da ca da wax dëgg yàlla te lépp ak bëgg la xëy na waaye nag nañ nañu xaw a seetaan mbir yi baay faal boo ko war a xemeem waaye wuroo coor coor da ngaa mel kuy simbu léegi moom mbaxar moomu nit kër bu wuus ba ci ci ci kii ak tubay joo xam ne day dem ba bay bay bay watu kenn xamul muy niroon kooku daal euh, maa ngi jégul ñëpp rek waaye mat naa bàyyi xel ndax fi da bu ñu wax dañaa bàyyi faal bàyyi faal yi rek nag waaw am ñoo xam ne dañ ci bëgg amu bëgg waaye ak seet doon ay gone yu tuuti dugg ci te xamuñu ci def loolu loolu daal nañ ci ñu jégul baax a baax waaw ah ndeysaan bay jamil <laughs> waaw mu am solo lool nag mu am solo Euh, moo euh, maanaam mooy li nga euh, li li ñu wax ne moom la am na benn air waykat boo xam ne daa mel lu mel noonu lay wax danaan maam Cheikh Ibra Fall nee na wëree di waare wóorul waaye maam Cheikh nee na nanu fexe ba ku ñu gis waaru mooy li nga wax rek ndax melokaan moom mooy lépp te sëriñ bi amul moroom moom yow ni nga def bañ xam ne sëriñ bi amul morom moo solo toog naan sëriñ bi amul morom kon day mel ni loolu it mën naa bàyyi xel ndax xëy na jëf ak ak ak kaw maanaam laxasaay li ci xol bi lépp rek maanaam mooy taxawal Baay Faal kon mu mel ni loolu lu mat a bàyyi xel la ah, mu mel ni eh, Sëriñ Ngom xam naa nag eh, yow dañuy dugg ci wàllu eh, maanaam jëf ndax agsi nañ nag ci koor gi te koor gi moom ku ko tudd xel yëpp dem ci Cheikh Ibrahima mu Baabul Muridiin ci fukki ndab ak ñaaram yi nga xamante ni moom la tàmbale woon liggéey boobu mu doon liggéeyal sëriñ Touba gannaaw ba mu ko teeruloo ganam gi nga xam ne mooy weeru koor mu mel ni fukki ndab ak ñaar yooyu tey dem na bax mën naa ne ay milliards lañ ciy def ndax ku dem njaareem ci sëñ am di xadi waaye dem euh, maanaam euh, Mbàkke waaye dem jannatu waaye bu tàkkusaan jotee ba boolu yëg jógandoo Seex Usmaan nga xam ne sa yaram day daw waaw ma ngoog kon maanaam jëf moom ana yow loo ci mën a indi ak taxawaayu sëñ Tuubaa ak lim ci leeral waaw bala ñu dugg foofu mm-hmm. lu sunu bàyyi bi doon leeral mm-hmm. lu njëriñ mm-hmm. daanaka lu mat a bàyyi xel la ndax Cheikh Sidi Muxtar Kunti yi dafa wax ni innal fawaa'ida fil aqaa'id nee na njëriñ yëpp moom ci pas-pas yi te sëñ Moussa dafa wax ni nit ki lu mu xamul du ci am pas-pas te lu mu amul pas-pas du ci jëriñu te si gars yi ni ñu koy leeral ni noonu la demee nag ñu bëree bëri ñoom ciy wax te ñi nga xamante ni ma réerandoo moo ci bari te dañoo war a dellu ginnaaw xam ne sikar mooy ëpp doole gën a rëy ndax suñ tubaab bari na ci masaalikul jinaan dafa xam ni amat dawaamu sigri waxu akbaru min kulli ma kaan murid yug suru fa qultu zalika bila israari fala ubaari zawil inkaari fa kullu man saxallani fa li jaab xabla walaati jaxal kitaab suñ tubaab nee na lu ëpp taalibe di bëreel moo xam murid nga tijaan nga xaadir nga laay nga koo mën a doon ay jullit rek tudd yàlla gën a rëy ci yow boo mën a jëf ndax boo xoolee alxuraan dani inna salaat tanhaa anil fahsaa'i wal munkar wala zikru akbar wallaahi axlol maas moom julli day fekk lu bon ak lu ñaaw waaye tudd yàlla moo gën a rëy mhm. kon tudd yàlla war nañ koo fonk bu baax a baax ci mhm. ci ay anamam mhm. maanaam ci sell geeg maanaam ba ci solin geeg ak ci jëfin geeg ci ak ci doxalin gi yooyu yëpp lu ci lu mot a bàyyi xel la comme noonu mu ko jàllee daal ñun ñi nga xamante ni maanaam ay ndaw lañ te te nekk ci yoon bi loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax def ko téere di ko muraaja léegi comme li ma laaj nag mooy wàllum ndog yi Baye Fall moom boo nee koor moom force danga koy tudd mhm. ndax mënu cee ñàkk day mel ni rek ak mhm. cin goo xam da koy togg te am forme mhm. ndax Seera la mu waxoon rek waxoon na leen ni leen inna lazina amanu boo leen gis ci alxuraan la cay daani man la yàlla di waxal may aamilu saalihaat waaw boo xoolee jëf yëpp maanaam jëf jëf jëf ju rëy joo gis rek maanaam Seera Fall na ci loo xamante ni kenn du ko defati moo xam ci joxe mm-hmm. moo xam ci maanaam jël ñaqam mm-hmm. ak yeneen ak yeneen mm-hmm. léegi nag sëñ Tuubaa daa am benn téere boo xam da ko tuddee Masaalikul Jinaan leeral ci ci benn buntu boo xam wàllum joxe wàllum joxe te joxe daa am solo yàlla nee na wamaan faxtum fi say wax yox li fi woo ku dépense ci man dara dama koy wuutal kon li ngay njëkk a xam mooy képp kuy joxe moom da nga maanaam doo ñàkk sëñ Saalim Mbàkke daan wax naan at day fekk fu dara nekkul mu defar dara fekk fu nekk mu baril ko te سنتو عنك بنتي بيدا فاهني وخيل إن خرط اليوم الباري وضرب سيرات فوق النار وكبت الورى جو الحمى نادى مناد أين أهل الحمى للمسلمين فأجبوا أجمعين فصاروا هنا للجنة للجنار مسرحين دفا واخني بونو جيلي سيرات غاتي كو سي جهنم با نيت ني دي جانكام ديك اي جونا اك نياكاري اك تيس يالا داي ووتي بو ووتي دا نان انا نيا دا ليغيل جوليتي خما كون لولو بونو كو واخي خما ني كون باي لسنج توبا نيانون نيوم نيو جي نه يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابرا ورحمه تيو يالا ماغي لاي نيانال ماغي لاي نيان غا خيرتال موماي ليغيل جولي اك ليغ يرم باي فال نك ديفيزام مو نيك يرم داي يرم نيت با باراي ديغو انا ني لان ليغيل نيوم نك ني وويو واجي بو اني ماي نيوم ييب ñoo ngi nii ñu ñu ñun suñu borom suñu borom ni leen fa yamaruna lil jinaani musrina daw leen gaaw dugg àjjana bi an yuxaali lohum am dul janna bi xayri mixnatin wa xayri finna dem leen dugg àjjana te bu leen dajeek benn coono ak benn loxo kon nga xam ne kon liggéeyal julliti lu am solo la léegi nag boo xoolee seenu joxe ndogu daa wuuteeg joxe ndogu ñeneen ndax ñoom dañ ci am ndigal sëñ Tuubaa moo joxoon Seex Rafal ndigal ni ko suba damay am gan maa ngi nag ñu bëree bëri jàppoon nañ xam naa ay ganu sérif laa yu demee sëñ Tuubaa Seex Faal dajal leen ba mu leen dajalee ni leen sëñ Tuubaa ndax xam ngeen gan yi muy wax ñu ne ah Faal boo ñu ci dimbalee ñu jël mhm. mu ni gan yi muy wax maanaam tay la lan ci weer bi ñu ne ko tay la juróom maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci baraxlu mhm. mu ni tay la seenu ko njëkk mhm. bu weer bi feeñee ban weer a cay topp ñu ni ko sax ramadan mu ni nag gan kooku lay wax kon nan ko waajal ci bernde kon loolu moo indi ndogal kon moom da cee bu ma kenn duural faxuma mhm. kenn na bàyyi julli ak woor natas ak aj màkk mhm. yàllaa ma woo ma ñëw ni ma Ibra Faal ma ne ko Faal mu ne ma yow ak sa waa kër ko ci def du ma la fay dara mhm. kon loolu terew ko kenn waaye loolu maanaam sañ-sañam la waaw diggante ma boromam bàyyi seex ndax soxla ko woon léegi nag boo xoolee am na bis am mag moo xam da ko ni Faal sa kër gi de am na ci ñoo ñoom dañuy joxe ndogu waaye dañuy woor mu woo leen ba ñëw mu ni leen doom bind leen ndogu ñu bind ndogu muy deel ak ak ak ak kaaf ak ñu jël adat mun leen adat ko ñu adat ko del 4 la kaaf 20 la xaaku wér 5 muy 29 mun leen ñaata fan la ñu war ñu ni ko fanweer manqué benn mu ni man maa ak sama njaboot bu ñu jëlee suñuy ndog togg ko ba mu jag di ko yóbbu kër Sëñ Tuubaa mbooleem ñi nga xamante ne ñooy woor ci ci ci ci ci jamono la yàlla di fay moom lañ may fay sama benn yëkkati ndog yóbbu kër Sëñ Tuubaa kon yóbbu ndogu suñ Tuubaa bokkut ak bu seerafal bokkut ak keneen mhm. waaw bu yàggul dara it maanaam kenn ci njabootam yi sëñ maam Cheikh Ndiaye Mbeng mu sëñ Mourou Moussa Fall dañu Cheikh Fall moo koon sëñ Mourou Moussa Fall ni ko ku ma defal ab tànk ci sama ndog yii dañ lay defal ku fan yuñ nangu yoolu ku woor waaw mooy ku joxe kon loolu am solo la moo tax boo xoolee xasida gi sëñ Tuubaa dafa dafa wax ni wax di turan li waj illaahi bila mani wala wah wa nee na ligel ngeen di yi ngir jëmmi yalla ci lu dul man ak maanaam def nit def nangam ba pare naan man maa def nangam. Baye Fall day joxe këram ay ay ay wala ay gëléem ak i nag waaye bu kenn xam ne moo ko joxe. Mhm. Mhm. waaw waaw naka noonu it mu ni. fa kullu man wafaaka libtidaay fa uh, fab zub alayhi mataral xataay. Mhm. in kaana zaaxinan wala taqil maal ilaa xaddi li xaw fi darar. li annahu subhaanahu taala huwa allazi axtaaka zaakal maal. suñu jaar wax ni. fépp foo xamante ni am nit ñëw na di dagaan dara. moo xam ci ndog yi dañ laa laaj addiya wala ñu laaj la sas yu demee noonu suñ na boo yoree alal yulli yulli leen lépp te xam ne yàlla la ko dénk te yàlla la nga la nga joxe ci moom képp boo lëggee moom nga fekk njëriñ ja waaye loo téye yow du la mën a jëriñ moo tax foofu da nga ci gisee ni kon suñ tubaa dañuy dindil nay te danoo wax ni nit ki bu nayee du dem àjjana donte ab jullit la laxraaf la jëm bu dee ab yéefar sax bu tabee àjjana la jëm kon ndogu Baay Faal yi ñoom dañ ci am ndigal léegi nag boo xoolee comme jamono nii nii ñu ko nii nii ñu ko ñenn ñi di defee daanaka maanaam dafa dafa xaw a wuuteeg waa kër Seera Fall li ñu koy defee tey jii da ngay gis koo xamante day jël këllam nekk ndakaaru di laaj ñami laaj fi ne nii ci seen alal lay toggee ndogu loolu Baye Fall moom du def noonu ñi koy def sax boo seetloo bu dee cent quatre-vingt-dix yëpp seen sëriñ santul Fall ndax ñi seen sëriñ sant Fall dëgg ñoo nga Mbàkke ñoo nga Touba ñoo nga Njaaréem ñoom ñooy jël seen propre argent def ko ba mu jag te duñ ci ñam xorom yóbbu mo ra ben mak alpular neena ma ma jall limi tek moy ma jall limi tek moy ma jall ma joxe sama alal ju bari ba pare yow kay ma dimbal la nga def ci ngir bo leug yalla bo leñu fay te mom alpulaar la wa alpulaar la talib cheikh kon kon kon gaay yi nek ci mbedd yi mm-hmm. di tek ndaw di koj auto yi mm-hmm. di jall mm-hmm. ak bu ndogu jotee ñu du leen ko joxat manam ñoñu lo ci lo ci wa loolu lu am solo la demb rek ma ngi daje ak ay mbokk talib di leen ko wax di leen wax ni bo fekkon defé ngeen ko nii de moo gën maanaam yéen ngeen jëkk cee def seen alal mm-hmm. bu fekkee gox bi ñun ñun ñooy Baye Fall ñooy tuddee suñu bopp Baye Fall wala ñun ñooy sëni ñu mat ñaar fukki nit mm-hmm. kenn ku ci ne ñu ne la joxel junni bis bu ne mm-hmm. wala joxel téeméer wala ñeent téeméer bis bu ne ko defee léegi nga xam ne am nañ café am nañ suukar keneen ku jël alalam nag jëluñ suñ këll di la laaj yow yaa am sax mbaa xam ne ñu geste bu rafet la ñuy def nga ñëw def ci sa sa alal ñu defaale ñu defaale la ko ci liggéey bi waaye kon jël këll bi daal di la ko laaj ba noppi di la ko joxaat waaw ndax dafa am benn mbokk taalibe bi sëñ naa Alioune Guèye ndeysaan <laughs> maa ngi koy siyaar baax jàmbaar yi sëñ Abdou Samad mu sëñ xarit <laughs> ñu may wax na ma télé bi yenn saa yi lu weex lay gis <laughs> waaye nag loolu yenn saa yi tamit fii lu canal yi nga xam ne dañ koy xëcc yenn saa yi mooy tax eh, interférence yenn saa yi mu manqué ba yenn kër yi eh, maanaam muy demee noonu waaye ñun fii moom ñu ngi jàkkaarloo bi lépp direct maanaam mu leer nañ ndax koor gi lañ koy defee maanaam 13 heures ba 14 rek yàlla dafa dogal dañoo ànd mm-hmm. waaye ba ñu àndee mm-hmm. am lu ñu doon saytu ji mm-hmm. maanaam mbokk taali yi nga xam ne dañuy laaj ci mbedd ñi nga xam ne Baye Jamin eh, da ngay gis benn koñ maanaam mu am lu mat juróom yoo xam ne dañuy teg bana mu doon genn koñ léegi mu mel ni nag maanaam moom loolu da ko xaw am sax nu mu ko def nag ba mu na ma eh, maanaam lii baax na loolu am na solo waaye biir boo koy defee da nga koy teg ci xam-xam ndax ñii bu ñu àndoon mm-hmm. di yëkkati seen ñaq di ko ci def ci lay ëpp yool ñu la koy laaj yow ba noppi di la ko jox loolu lu wér nga wax wallaahi mooy li nga leeral nii yàlla dafa wax laa ikraaha fi diine xat tabayyana rusda kenn du forcé ci diine damay faral di wax nag di wax sax ni maajaal sax gars yi usul bi dëgg dëgg xamuñ ko moo tax nit lépp lu ñu dund da ko war a xam gis nga maajaal tey jii sëñ sëñ am di Modou Mbène bu wootee ab coulage bàyyi faali bàyyi ba heure añ xam nga dañuy pause ñu jël seeni bool teg seen samfal samfal moom laay laay la laa la du rax dara kenn du ci rax sëriñu jàmbur dara waaye léegi nit ñi xaalis sax na fi leen sëriñ bu nee da ngay toog ca baasu ñu la ci dugal ngir sëriñ booba di wax diw jox leen ko addiya loolu amul loolu promotion la laay ko ngir yàlla birit lu mën koo caab boo ko seetlalee léegi nag boo xoolee sëriñ bi ba mu wootee liggéey boobu bu taaloon ay mbanam mbooloo ma dafa bari da ciy fere ay millions yu bëri bàyyi faal nag heure añ ñu daaj seen sàmpaal dugg ci dugg ci kër yi ñu leen di jox añ bu ko defee ñu wàññil sëñ bi dépense looloo waral maa jàll waaye comme waa Dakar nag ni ñu koy defee nag moom moom moom bokkul moom mm-hmm. tey jii bu fekkee dañoo wax ni dañuy dañuy dañuy joxe ndogu ci kër yi mm-hmm. kenn ku ci nekk ci ñun maanaam waa gox ba ñi nga xam dañoo woote Baye Fall Seera Fall jariñ maanaam jaral leen kenn ku ci ne day génne ñaari junne wala wala kenn indi paquet de suukar wala kii indi kilo café bu ko defee buñ ko dajalee ko ba mu baax di ko joxe te buñ jël këll di laaj kenn loolu moom bu ñu ko doon def mooy te ne nii comme li nga wax ni maanaam koñ ñoo xam dañoo taal mbane wala juróom loolu lépp nañ ko def benn bu yaatu boo xamante ni waaye ñun nag ñoo ciy jël su ñoo ciy njëkkee suñu alal keneen ku ciy ñëw it door cee ñëw Lol loolu moo ëpp solo ëpp avantage waaw bu fekkee tey jii ñun dañuy seerafal la roy dañuy xool sëtam yi ni ñuy ndax boo xoolee kër di xadi kër sëñ Modou euh, am di Modou Mbend kër sëñ Cheikh Ndigal sëñ Cheikh Ndigal amul kenn koo xam dalay laaj un franc ku ci jox addiyaam mu boole la ci am di xadi gis nga kaw solo li ñuy bari danaan man li ngi nii ay raqam ñëpp indi nga xam ne ndogu la damay faral di wax fan ye mang ngi koy wax ci sun émission jësul mouride mhm. maa ngi soxna Sylla ci njabootu seerafal gi la bokkoon soxnaam la dafa am ndog yoo xamante ni ba mu ñëwee seerafal di xool boole ba mu ñëwee ba ci ndogoom da koo xool muy cere yoo xamante ni amut la ca aju Seera Fall woolu ko te da daan def ndaguy taw féexe soxna si la moo sëñ Modou Moussa Fall ak Sërif Assane Fall ñaar ñooñu laa moon te ñaar ñu ci ne doon doon xalifa ay sërëm sax daanaka kenn ku ci doon doon na xalifa sëñ Modou Aminta doon na xalifa naka noonu sëñ Seex Jëmb sëñ Amdi Xadim yi yàlla na gën a yàgg gën a kon li ko ba mu xoolee boole nag xam ne daa daa kéemaan loolu moo ko soxna soxna si ni ko Fall jamono rek waaye beneen yoon ñaanal ñu rek dina gën a tawféexe mm-hmm. ca la ko wooy ba mu ñëw ni ko soxna astu mu ne ko faal mu ni ko yow say ndogu ca kanam la ndekete ndog yëm ko doon wax mooy ndogu sa am di mm-hmm. euh, xadi wala sëñ Seex Ndigal mm-hmm. wala sëñ am di Moodu Mbenda teg ko maanaam teg ko bët waaye nag ñun dañuy doxee maanaam ñu sentir te diine demeewut noonu kenn du doxee ci xel sëñ Tuubaa moom fekkee da dox ci xel moom doo ko mës a am waaw sëñ Tuubaa di maanaam duy mhm. ku sóobu nu mes bu génnee xam boroomam ku sóobu aw ca yoonam ba feesal mhm. lu mu liw liw dajak boroomam mhm. boo ba ca biir nee na ndo maanaam maanaam dof bi yeewul ndox maanaam maanaam lewet na waaye wex ca biir loolu li muy tekki mooy yoon bi da nga koy xam ba pare door cee dox nag dem waaye léegi ndaw ñu bëri soobu nañ di woo comme ni mu ko waxee ay wàllu Baye Fall waroo ko gis sa xel dem ci sumb wala ay mbër Baye Fall dafa a ay caaya jut mat yaa ngi dégg di def defin gu baax di wax waxin gu baax yàlla ba muy wax naan yaa lazina amanu uttaqullaa wa xuulu xawlan sadidan ba mu koy wax Baye Fall taxoon yow mi am da ngaa gëm yàlla na nga ragal yàlla te wax wax ju jub wax ju jub dara gënu ci rëy laay laay la laa te <laughs> Baye Jamil maanaam fii fi jëwriñ ne ci eh, maanaam mbokki taalib yi nga xam ne eh, xëy na eh, seen yéene nag moom jàpp naa ne yéene bu rafet lay doon jubluwaay bu baax lay doon waaye nag ñàkk a xam gi tax xëy na yenn jafe-jafe yi di am nga xam ne di nga gis ku poñe nit ràpp ci nàngam wala ngay laaj nit laajin woo xam ne moom mi la koy jox sax xëy na ni mu lay joxe kéemaan la xëy na loolu ana loo ci mën a indi hmm, jërëjëf loolu loolu dëgg la loolu wax dëgg la euh, waaw ndax xale yi digg ndeysaan euh, am nañu yéen ndax loolu jigéen yéene bu baax la euh, waaye nag li sëñ bi wax muy ñoom seen bopp bis bu ne lu mu gàtt gàtt lu ci kem nañ mane ak lañu ñu amee bis bu nekk ñu génn seen dara hmm. def ci hmm. doo laaj ku ñu laaj. Mm-hmm. moom moom mooy la gën. Mm-hmm. Euh, booy laaj itam nag. Mm-hmm. nga laaj sa tey ji bakkan. daa defal nii. boo nee addi Cheikh Ibrahima Fall. karoom ba ca mën a joxe. joxe waaye bu forcé kenn. waaye jiñ ko kii bi ba nga xamante ni bii. day mujj am sax wala xaw am njéppite. su mënta ñàkk joxe tam dina jox waaye joxub jéppi. waaw te tam dara jëru ko. waaw kon am noo koy laaje waaw dégg nga. ci la jox tam jox la ci reeju bakkanam bu fekkee tam mënut a jox wala amut mu yéene nga bàyyi ko mu jàll loolu da ci baax ndax am na loo xam nag ak bëgg la waaye di bëgg koo xam ni eh, xam da ca dafa àndul ak ak weñ dee ci soow mi bëgg soow moo ko rey waaye bëggul woon a dee bëgg dafa dafa wutee ak ak ak ak bëgg suukar bëgg suukar daa bëgg suukar xam nañu bëggee suukar moom moo tax suukar du moo tax bëgg suukar du tur du du loolu xawma nuy turu cosaana man kenn waxaguma ko bëgg xam nga bëgg suukar waaye xam nga loolu bëgg su bëgg moom suukar kooku olof waxu olof la moom kon bu ko ak turu turu turu gunóor bi mhm. waaw waaye bëgg na bëgg xam daal nee nañ kon bëgg suukar. moom fexe na ba xam moom nu muy amee suukar. jeex na moom du ci dee daal du ko ca wàññi kon moom so wàññi nag dañuy ñëw daal di sabax rek. waaw waaw ci biir. Mhm. ak bëgg la am. Mhm. waaye am lu ko xam moo tax kon bi mu ne. Mhm. am ca xam da cee baax. kon xale yi ñu baax lañu ñu day san ndax toog ci naaj itam. di segg si mbenn mbenn café. tàngoor ak ñaq wi. bu doggatee ñu def seen i mburu seen kii di ko jox nit ñi ci am na ñoo xam ne tam. loolu daf leen arrangé. waaw ndax ñu ngi ci oto. embouteillage yi xamuñu fuñ jë kañ lay egg seen kër. Mhm. yow boo tool bi ñu la ko joxee Dakar waxtu bu dog. Mhm. yaa nga jëm ba ginnaaw Kër Massar. Mhm. kañ lay egg sa kër. kon loolu arrangé nag kon léegi. xam ndax am ci ak ak ràññee rek. waaw ak ci ci ràññee da ci da ci baax. ak itam nag buñ ko mënee. groupe fii. groupe yi groupe yi ñu jegeñee loolu tam su fekkee mën naa ñàkk tam bu Sëñ Tuubaa rek tax Cheikh Ibrahima Fall loolu tam mën naa ñàkk waaw daf koy groupe yoo xam ne daal am na ñoo xam ne mën nañoo bokk benn benn benn benn kii ñu xam ne dañuy liggéeyal yàlla nag lu ko sëñ wax sàng lu am lu am solo la muy bis bu ñu siraat gàtt ko ci jaxanama waaw wakaabada war a jaawal xumma nga xam ne bi ndef yëpp am nañu njàq rek tiitaange ndax jéggi siraat dafa doy waar bas siraat niñ koy gaa yi di misaare weñ gi sew di bitar ñu ko ca ca sawaraa nekk suufam ñu la jéggi ko ca dañ siraat jéggi dex gi nii junni at la nga taalal nii mu junni at nga door a wàccaat mu junni at mooy ñett junni at xam naa ku yàlla bëgg ci mu ak tax nag du gudd guddaay ga du demee noona waaye li gën a gàttaal buum na goo xam ko ca jaar soo daanoo safara ngay daanoo kon sëñ Tuubaa kon nag bañ ko gàccee buum googu jaxanama gaa yi war a jéggi ku jéggi ba jàll dem aljana ku àggul nag daanu ngi safara sëñ bi ne kon su boobaa njàqare gaar ñëpp waa waa kaabra war a jawaa wal xuma tiitaang ak njàqara su boobaa nag am kàddu go woote waaw daal ni ah ay na ahlul xidma ana ñu doon liggéeyal li muslimiina ñeel jullit yi waaw faaja aj mahin ñu daal wuy mboole seen nee naa yow moo doon lil jinaan wasat yéen dina mm-hmm. ko aljanna day mel ne sax loolu ko balaa atte ba am la mm-hmm. ñooñu day mel sax loolu doomu atte ndax bu doon dañuy atte ba ñu door a jàll du amante sens dafa am ñoo xam ni ñooñu liggéey bi leen jariñ dañuy def aljanna bala ñoo atte mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoo bëggante ci yàlla ñaar ñoo xam ne ñoo dañu lu ngeen bëggantee ñu ne yàllaa nu boole ñu ne dem leen taabi aljanna dem bay taabi aljanna malaayka yi doogale leen ni yéen yéen ay ñan ngeen jëm ñu ne aljanna ñu ne ah àjjana atteeguñu ba kenn tàbbi aljanna ñu ne ah noonu jox nañu ndigal tàbbi aljanna ñu ne kon yéen yéen a ñu ne noonu nanu mu taxaaboona fi laahi noonu soppante ci yàlla ñu ne kon tàbbi yéen kon am na ñu dem àjjana ñoo xam ni duñu fekk atte ba kon liggéeyal mbindéef yi nag julliti yàlla yi ci la ngeen war a liggéey comme ko sëñ waxee rek kon la am solo ci xale yi loolu wax dëgg yàlla ab liggéey xiif nga jox ko mu nekk waaw jox ko ak mburu café tàndarma wax dëgg yàlla loolu moom moom daal la ci sens mooy nañ ci seen dara dem waaw waaw nañ ci góorgóorlu jël seen dara rek du mu tuut tuut tuut tuut tuut na jël seen ñaar dërëm ak seen juróom ak seen ñaar fukki dërëm kon ku ku jëfandiku am nañ ko ndax euh, dañuy sëñ Fallou Mbacke dafa am daale bu ko mas di siyaare daayir bi def naa ci ni ñoo ko nekk euh, limba maanaa doon fanweeri junni yaakaar naa ne wala ñaar fukki junni ñaar fukki junni mooy mooy kees gi léegi jëwriñ ji daal di jël kees gi jébal ko sëñ Fallou doo jëm fukk junni boppam teg ca sëñ Fallou ni ko xañ nga yoolu fan wéeru junni ni ko soo jëloon sa junni bi su fukk junni yii booleeg ñaar fukki junni yii mooy fanweeri junni nga joxee ndoo ko ñëpp am yoolu fanweeri junni soo gisee daayira am solo loolu la daayira li tax mu am solo lislaam dafa bëgg bokk àndandoo ndax soo beroo am na loo xam ne ca ànd ak nga ko mën a amee léegi nag ku dërëmam dem ci ci kees gi ñuy jébbale kees ga nu kees ga toll kon am na pay gu toll noonu loolu mooy mooy moo mooy njëriñu daayira kon ñoom itam médial mi nañ ci boole rek loolu yéen seen ñaar dem daal ko ndeysaan waaw waaw jërëjëf jërëjëf Baye Jamil euh, ndax daayira moom euh, mooy ay benn benn nit yu ànd euh, takkoo ko maanaam fas yéene liggéeyal sëriñ bi Eh, waaye ci biir daayira ba tey léegi gars yi sax àgg nañ ci am ay fédération nga xam ne ay daayira yi booloo lañu doon lu daje xam naa dinañ am émission boo xam ne dinañ ko waxtaanee ndax itamit yoon yi lu ci ëpp li fi taxaw daayira yi la ndax siyaare boobu ñuy seen at yooyu ñuy dajale di ko siyaare ji sëriñ bi daanaka lu bari ci yoon yi moo ko defar kon day mel ni eh, eh, am na bés tamit ba koy wax ne jàngkat bu bokk ci daayira dem ba am noo mel daal di wëlbatiku nag tàmbali di ko waa daayira ba wala ngay am nooy doxee di ko waxee loolu tamit day mel ni mat naa seetaat loolu mës nga cee soññe waaye dinañ mës waxtaan nag ci daayira xam naa dina ñëw euh, Cheikh Ousmane dafa am fu ñu tegoon baaraam ci xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall baabul Mouridine bi nga xam ne ci ndigalu euh, Serigne Cheikh jëmb euh, lañ ko taxawalee daayira bi xam naa boo ñu mënoon wax doxin wi ci lu tënku bu ko defee ñu soo ko jàll ci yeneen question yi xam naa sax balaa may tënk foofu hmm. da ngay na am bunt bu ngeen laal mu am solo lool. waaw muy mm-hmm. ndogu yi. Mm-hmm. ak ni ko bàyyi taalibe yi defe mm-hmm. ak ni ko bàyyi jëmil waxe di ko laaj ba pare di leen ko joxaat. seen alal. am loo xam ne man dama koo fekke fee ma dëkk ci caaro yi. dafa am fu ñuy wax kafe ga. di fa fekk boo fa demee samay rak suy faal ak euh, euh, Babacar Bàccili sama xarit. Abdou Khadir Fane. ñoom day seen ndogu moom. mën naa koo seere. dañ koy jaayante daayira ba par dimanche lay doon man mii dan may woo ma ñëw léeg-léeg di leen di leen di leen ci dal yàlla waaye ñoom dañ koy génn ci seen poos di ko di ko di ko di ko cotiser bari ki dem rek bi koor gi jub maa ngi wax ak Abdou Khadir Fane daf maa bëgg lool nag ñuy waxtaan mm-hmm. mu aan ma man kay fi ne sëñ bi dama sama sama sasu ndogu yi fi ne moom moo ci laa ne ndax bu soobee yàlla dama ko fas yéene joxe nga xam ne dañuy takk yaakaar naa ku ci ne dana joxe lu mat fukki junni ñu dajale ko mm-hmm. maanaam bisu bisu ordinaire yi mm-hmm. ñu joxe café ak mburu ak dara waaye bu àjjuma jotee nag ñu soppi ko def mburu ba waaw yoo xam ne yow ñami Tuuba ak Daaru Salaam yoo xam ne day baax ci ñi sant fay loolu moom maa ko fekke <laughs> takk seeni rajo fi ne jaar naa fa léegi baas baa nga tege su noppee nag soog ko taxaw nag ci tëli bi nag comme euh, fi nu koy defee bu tëli bi dafaa jaar ñu yor nag seen seen kër ku fa jaar nag te am loo ca sànni nga sànni ko ci loola maa ko seere te xam naa ne am na ñeneen ñu mel ni ñoom ñi ci desit seen bëgg la rek waaye nan déglu ku mel ni Baye Jamil rek ak di nangoo déglu seen magi taalibe yi eh, xam naa sax ah. Ousmane maa ngi profité uh-huh. dafa am tamit sam benn baay boo xam ne dafa nekk Touba uh-huh. muy Baye Galas Cissé uh-huh. ndeysaan tuddukatu yàlla di bu baax eh, mu mel ni eh, maanaam ñoom Euh, barabu sëñ saali mm-hmm. ci day mel ni miir bi ñu ah. féete ak mm-hmm. maanaam fa la ñuy joxee ay ndogu mm-hmm. mu mel ni at mu jot nag danañ ci joxe lu lim nag day ndeysaan ndax dafa mel ni ndogu yi daal ni koy joxee foofu doy na kéemaan ba xam naa ne nag mel ni ne soxla nañ ku ci jàpp lool kon daal mboolem kuy seetaan te eh, maanaam mu a jàpp ci ndogu yooyu nga xam ne ñoo ngi koy joxee barabu sëñ Saaliw am na ci nag lu leen soxol ndax ba ma ko waxee dama na ko eh, dafa ne wàllu mburu mi daal am na nu mel ma ne ko nag Eh, maa ngi ñaan sëriñ bi mm. maanaam boulangerie bu ne foofu bu lay dégg mm. mën a jaayante mburu bi ndax loolu mën naa ne nga yeggal waaw eh, noonu rek la demee mm-hmm. eh, ñaareel ba mm-hmm. di di santit sama waa kër sëriñ mm-hmm. ndax ñun sëñ Ibrahima Dia mi nu yaakaar muy bàyyi Fallou Maam Cheikh Anta ci ndigalu sëñ tubaa Cheikh Fall da ko ba ñëw mu ne ko sëñ bi digalu ko woon kenn bàyyi kenn ko ko nangoo fe jëf jëfee fi am ak ku ko oyofal waaye sëñ bi digalu ko woon kenn bàyyi kenn muy ndog yi muy ndog yi kon liggéey baa ngoog te sëñ Ibrahima Dia bi muy ñëw ci maa ngi tuub bi muy ñëw di jox boppam sëñ Tuubaa mi ngi doon Birane Dégène bi mu ñëwee sëñ Tuubaa ne ko Ibrahima bi mu génnee nag la ko Cheikh Fall jox loxo ne ko ndongali dégg naa ci dama koy résimé mhm. dégg naa ngay waxantee ku baax ki mhm. mu naan la noo def ak téereb suñu borom bi ngaan ko xam nan ko ba di ko xam xamle mhm. waaye dama laa bëgg a euh, jox tey xarum tudd noo tudd mu ne ko bi may ñëw ci sëriñ bi de biraan diggéen laa tudd waaye Ibrahima Jàlla ma tudde bis ni tey maam Cheikh Fall jox ko loxo nii Baye Jamil ne ko yaay sama premier turandoo ci yoon wi ndax bi may ñëwee yàpp sa xànc laa fi indaale ci sëñ moo ma tuddee Ibrahima waaye xarum tudd moom ma la tudde nag mooy jox gi ma la ko jox te dem wuti fi ay tool yoo ko liggéeyee te indil ko fii aw njàng amu fi sole ma rek moo fi am solo moo tax ñun ñuy toggi ndogu fi mu ne ndogu yaa nga daaru salaam ña nga ca dañuy def saa su jotee sama sëriñ dajaloo sëñ Ibrahima sëñ Omar ma jiite ñu dajale suñ dajalee bu dee 3 millions la wala 4 millions nu mu toll dañuy def direct daral jënd gàtt yëpp ba mat mm-hmm. jënd ndax duñ togg ceeb mm-hmm. jënd macaroni bi jënd ñamu daaru salaam mm-hmm. dajale ko stocké ko bis bu seet bu ne ñu teg ñaari mban indil ko ko fi nekkal sëñ gaawaan léegi loolu ña nga leen cey sant baax te xam naa ne am na ñeneen ñu am yéene te ñàkk xam rek moo leen ci dugal waaye nan dem gëstu ji rek ba xam ni ni ni ni def ba def ko te li leen nit ñi joxit nan jaayante te defaat ko ci café gi ngir yàlla joxe ko te bañ koy beraat ngir bu noppee am na ci ñoo am ne nii dama leen di gis dañuy noppi loolu dañuy jël neex yàlla ay ay ñàkk fulla lañ koy mujj di keek yooyu kon ñu góorgóorlu ci baax jërëjëf sëñ xam naa foofu tamit daa mel ni yaa ngi woon ci xidma bi eh, waaw kay xidma bi mm-hmm. bi nu ko sëñ bi digalee dafa yaa woon wax ne mm-hmm. euh, bàjjen ma man taje maa ngi koy siyaar sa xarit bëgg naa ngeen xamante yaag bàyyi jamil am naa ci yéene lool ndax euh, day sama sëriñ di jigéen di gaynde yaakaar naa mooy mbokkum sëñ Ablaye Dia Ablaye ñoo bokk ndey ak baay fi na jumaa jee sëñ Ablaye di defaral maam Cheikh Anta mm-hmm. di ca mm-hmm. maam seen nan mooy seen maam mooy seen waaw mooy seen maam alal sëñ sëñ sëñ Ablaye jooju boo gisee mu mën a dem fu baax waaw moo sëñ Ibrahima Dia moo demoon Màkka moo tax ñu tawaaf Kaaba ga dafa amoon doole sëñ Tuubaa dafa am lépp mm-hmm. ba ñuy dem te sëñ Fallou maam Cheikh Anta ne bu ñuy dem lu waay bëgg na ko wax maa koy waxaale rek maay fay sëñ Fallou ne ko bàyyi Cheikh li nga yéene sëñ Touba di ko defal ba woo ma ci ma taxaw fi jotaay sëñ Touba naa naa xëcc kaaba gi ñu aj loolu la ko waxoon mu ne ko loolu kon yool bi day gàtt danoo war a sonn dem mu ne ko kon kenn du fi faatu mhm. sëñ Ibrahima Diané dafa waxoon ne bu nu eggee màkk doole dafaa baax mhm. lu doolee def nan ma ko bàyyi waaw loolu loolu maam mbir la yu yaatu yoo xam ne nii moom Baye Jamil xam na bàjjen maam Anta moomu di def am solo moom it mm-hmm. Mm-hmm. ay millions la ciy fere mm-hmm. waaw loolu foofu daal loolu daal mooy ndogu daayira xidma bi nag bi ñu ko sëriñ bi digalee dafa waxoon ne na ngeen xool ku leen doy ngeen te seen kanam na ngeen xool nu ngeen di man di dajee ngeen di ko ni dajee xool leen nu ngeen ko man di joxe ngeen di ko ni joxe moo tax bi mu tuddee léegi ne ëllëg ñooñu dañuy laaj bu ñuy jéggi ne ana ñu doon xidma ca yàlla tax ndokk ñun bi nu suñ seex jëmba tuddee xidmatu Cheikh Rafal kon jàpp naa ne tuddkat yàlla yu mu liggéeyloo waat ci biir turu yàlla bi la loolee am na ci tawfeex ju toll ni yémaliwun ko rek ci di addi eh, ji nu mujj yóbbu day bariwut xeeboot nañ ko lool waaye lu mu gàtt gàtt mat na million ren ak ñaar fukki junni eh, eh, mu mel ni sëriñ bi bi mu nu ci dimbaleet fexe nan ba sëñ maam Cheikh ci ndigalam bu màggal jotee danañ jënd nag yu ñu yut Cheikh Rafaal mu yut sëñ Touba su tabaski jotee danañ indil ay xar Cheikh mu boole ci yi mu yut sëñ Touba noonu lañ koy liggéeyee bi mu ko defee bi ñu ko taxawalee nag ñu ne léegi ajjuma ji maanaam weer wu dee wu ne neti ndax ginnaaw ñi ci bokk ñëpp ay tuddukat yàlla te dañuy ami bis euh, weer wu dee wu ne dañuy jaan le premier ñu daje ci benn tuddukatu yàlla suñ fa dajee tuddukatu yàlla yëpp daje fa ñu natt ku day joxe addiyee ñaar boo ci bokkit da ngay dagg carte membre. ñeenti te ñaat téeméer. soo continuer nag di nekk nag weer wu deewu ne nga natt ñaat téeméer. su ko defee fukki weer ñaar incha allah day nekk douze mille francs su noppee nag bu nu eggee ba ci jébbale bi nag ñu dajale àddee jooju nag. boole kook nag lu waaye mën a jaayantaat nga jaayante ko ngir jëmmi sëriñ bi nu mu la ko jarale mm-hmm. nga joxe ko ñu dajale ko yut ko yut ko yut ko ki fi nekkal mm-hmm. maam Cheikh Rafal ren ñu ngi ko indil sëñ Amdi Moodu Mbenda mm-hmm. daaw leen ko mujj jox sëñ Cheikh Jëmu ndeysaan mu sant nu gërëm nu euh, feddliwaat nu ren ñu jox ko sëñ Amdi Moodu Mbenda yàlla na fi yàgg daayira bi daal noonu lay doxe képp ku ci bëgg a bokkit ba ca Touba na ma ko waxe woon sëñ maam Cheikh Fall mooy kilifa ga bu dee fii ci Touba Caaroy leen ko taxawale ndax sëriñ bi kat moo ma waxoon ne ma jox nañ la ndigal na nga fexe mu taxaw ndakaaru na taxaw mbuur mbuur it demoon naa fa taxawal ko fa waaye xëy na aman nan ak tekkandi ñoom it ci seenu doxin waaye boobu ndakaaru bii moom ñi ngi doxal ñi ngi góor góorgóorlu te it xam na ne maam Cheikh Fall teg na ci loxoom ndax bariwun de waaye saa suñ dajale rek génne génne génne addee waaw te loolu rek mooy li am solo man damaa gëm ne sax ah, ah. dina dem ba dugg bitim réew incha allah am na fa am na fa am na Espagne maa ngi tuub sëñ góor a sekk ak mboolem ñu nekkal Espagne ñoom it bariwul waaye Pastef bi ñu yor sëñ Bass benn rek la. di doon ay jàmbaar yoo xamante ne bii. Mm. at mu jot saa su ñuy jébbalee lu mu gàtt gàtt juróom-ñett fukki junni wala juróom-ñaar fukki junni dana jóge ci ñoom ñëw. maanaam te bariwul sax. maanaam ah. eh, doxinu daayira bi uh-huh. ci wàllu social. waaw maanaam wàllu jàppalante. Uh-huh. ndax Baye Jamil wax nañ ne. Mm-hmm. Eh, sëñ Mbacke Gaynde Fatma. Mm-hmm. Eh, maanaam ba mu ñu sos daayira mm-hmm. maanaam li ëppoon. maanaam ci. li taxoon mu sos ko mm-hmm. bokk na ci ñuy dimbalante mm-hmm. gannaaw bu ñu sosee daara mm-hmm. di ci jàng ak di ci jàngalante waaye ku tane sa morom mën koo dimbale dimbalante yooyu nag yaatu na loolu am na ci ñoo xam ne xëy na ci biir daara ji kii la nekk menuisier kee nekk maçon kee nekk nangam ak nangam nga xam ne duñ jéggaani dara waaye léegi ku wopp nag waa daara ji ñoo la war a taxaw maanaam foofu nag laa bëgg a ñëw ci seex Cheikh Ndoye ana yéen ban taxawaay ngeen ci am waaw euh, xam nga maanaam da di ku ne ci lu lu lu am doole rek mhm. da ngay am doole mhm. turu yàlla moo mel noonu mhm. waaye wax dëgg yàlla waa daayira bi xam nga da ciy am loo xam ne doo ko wax ci télé ne def na nàngam def na nàngam euh, waaru biir lay doon ndax ne ku ne xam na ne sëñ Tuubaa teral na ko Cheikh Rafal teral na ko ndax li gën a teraanga ji gën a rëy rek mooy tuddukatu yàlla boo xamante ni bii tey gone yi mujj a juddu sax ñu ngi lay roy ci ni ngay tuddee yàlla mhm. moom it mu roye woon ko ca bàyyi ji bi juuf ak ña mel man ñoom yàlla na yàlla dool leen euh, leer ak yërmande mhm. euh, kon teraanga ji ko ji ko ji ko sëriñ bi defal mhm. euh, nit mënatu ko defal lu lu faw xal wala waaye nag téewut ñun ñi mu bokkal daayira bi li nu war suñu digg ak moom ñu ngi ciy jéem leen man ndeysaan wax dëgg yàlla waaw ñu ngi ciy jéem leen man ndax bu fekkee damay wax dëgg rek am na taxawaay yoo xamante ne bi mhm. waa daayira bi ñu ngi ci taxaw mhm. waaye nag doyut mhm. doyut ndax day am lu man am lu mën am lu te lii nag jàkkaarwut ak man téléphone sàkk ko ci man de dëgg la dëgg la lii ñu koy waxal jàkkaarluwut ak man ci télé yow ci ci wax ko man ne ma waxal ma nangam déedéet yow da nga maa woo téléphone rek démb bi may soge jóge Touba ne ma Baye Cheikh Ndoye damaa bëgg mu ñëw te yow mënoo ñàkk a ñëw looloo ma indi waaye jàkkaarluwut ak man loolu dafa war a leer de ne nan ko waxal lii waaye nag am nañ yéene it nag comme ak bokk taalibe ak mbooleem ñuy tudd yàlla ginnaaw kilifa la guy tudd yàlla jeex tàkk ci tur yàlla yàlla dogal ba tey mi ngi koy defit nag yàlla na yàgg waaye am na wéradig yaram gu muy sooxaale di ko demaale te nit ñi yàlla am na ñoo xam ne yàlla jox na leen loo xamante ne bii man nañ ko ee jàppale man ee jàppale sax kurut moom te te te te du wàññi dara ca lañ yor te xamuñu kañ la ñuy faatoo moom te kenn du ko yóbbaale te dërëm bu ne des na ko audité laaj la noo ko amee ak kon nanu jaayante ngir jëmmi sëñ tubaa sunu mhm. kaddu yi ñàkk na soo lool te suufe mhm. waaye képp kuy dégg sunu kaddu. Mhm. sëñ Cheikh Ndoye mu ma nga Touba. képp koo xamante ne bii jaral na la yow nga mën a jug. demal sa bopp. bismillah koo xam ne jaar nga ci suñ basiru bismillah waaye sàkkuwu ko nag waaye ñun ñoo am yéene ñun suñ ko mënoon duñ ko wax dun ko duñ duñ duñ ko duñ ci toog plateau di ci di ci wax mm-hmm. dañ koy def rek mm-hmm. waaye lanu lanu lanu tollool nag ña ngi koy def mm-hmm. ma nuy ñaanal ma ngi nuy santit te it fexe ngërëmam dong lañ ci sàkku te xam naa dinañ ko am waaw kon nag yàlla na yàlla dolli ko tawféex noon daal la daayira bi doxe te it leen koo xam ne ni suñu borom dogal na nga bokk ci daayira bi mhm. soo amee bis mhm. waa daayira bi dinañ fexe ba mhm. seen addee dana ci ñëw waaw bo muy bàyyi daayira bi ci ndakaaru muy ba ca Touba képp ku ci am bis daal wala nga xewle lu mën a doon muy xew naqar wala xew bànneex waa daayira bi dinañ dajaloo fexe ba jël doole jàppaleele ko ngir jëmbi Sëñ Tuubaa ci lu kenn du yëg nag waaw loolu daal daayira bi daal noonu lay doxe jamono jii nag ñu ngi ci ndogu yi bàyyi faal yaa ngi ci koor gi eh, dañ koo ajandi ban bu nu waree dañuy daal di continuer liggéey bi rek sëñ Cheikh jëm moom moo ne woon xidmatu Cheikh Ibra Fall mm-hmm. te ñun duñ duñ taxaw dañuy continuer rek waaye li nga wax daal ci sëñ Cheikh moom mm-hmm. ñoo ngi ci lancé message bi di ko wax ñépp ne mm-hmm. sëriñ baa ngi koy sutural sëriñ baa ngi koy teral waaye nag nit ñi yor dem jàpp ci liggéeyam dana am solo te dana la dimbale ëllëg euh, macha allah Cheikh Ousmane euh, xam naa sax Baye Jamil Euh, maanaam daanaka mën naa trente cinq minutes moo des ci émission bi fanweeri minute ak juróom ndax euh, koor gi une heure trente lañ koy def euh, donte une heure de la woon dinañ ñëwaat ci sëñ Cheikh Ndoye waaye li ma ci mën a wax man mooy dëggal Ousmane li nga wax rek ndax man kat yàlla dogal na maanaam jëmm ñu ñu naan Cheikh Niang Baye Fall maanaam moo sàkku ñu dalal Cheikh Ndoye fii ci plateau bi mm-hmm. ba ma ko waxee nag dama ne ko waaj ko talaata ji di ñëw far yàlla dogal nag lim dogal moo doon a teew waaye mu mujjul teew euh, mu mel ni nag euh, maanaam euh, sëriñ Ngom mi maanaam mën naa taxaw fépp ak yow Serigne Ousmane mi waaye nag xam nga li doy mooy yàlla dogal na sax ci taw fii xam yaakaar naa bu mu jumul zikru laa door bi alaaji mbàkk yi fay eh, defoon ànd ak xasaay door bi dafa mel ni raaya ba dafa mel ni Seex Ndooy moom lañ ko joxoon mu mel ni nag ñu mel ni alaaji mbàkk yi bari nañ fi ci mëna taxaw nit ci li leen sëriñ bi dimbalé ku melni suñu suñ ma anta manam euh, ma ngi faslanteeg moom kóllëre ci ci ci ci sak bi ko sak manam ma ngi ak mom kóllëre te gisaguma ko te lol dina am ak i tamit ku mel ni euh, maanaam euh, ñëpp rek manam kep ko xamné rek manam japp nga né mm-hmm. eh, Cheikh ndoy mëss nga dégg turu yalla mm-hmm. sa xol sedd mm-hmm. bu lok suñu borom mënalé manam nga jëm ci jaayante nga xam ne loolu kat liggéeyal Cheikh Ibra Fall Babil Mouridine la xam naa nag dinañ ñëw ci formalisation euh, maanaam jàngkat yi ak yeneen da ci aju mm-hmm. ndax xëy na euh, am na mbir nag fu muy toll mm-hmm. day mel ni teel koo dabu mm-hmm. laataa mbir di agsi maanaam da koy gën dinañ ci ñëw euh, jëwri day mel ni ñu ngi woon tey ci ndogu yi nga xam ne maanaam ñoo ngi koy joxe waaye ndogu yi nag Euh, mel ni na sax bàyyi jël liñ ci leeral wér na mhm. ndax bu ma juumul mhm. dégg naa ne yonante bi am na ku doon yéem mhm. ci taxawaayam ci mën a jaamu yàlla maanaam ndax dafa mel ni euh, da doon fanaan ci jàkka ji di naafi la waaye bu xëyee nag day wor mu mel ni bañ ko yéem yonante bi laaj ana ci ñi koy ci saaba yi ku koy dundal mhm. ñu ne diw koy dundal mu ne kon diw ko gën waaw day mel ni kon joxe nag kon am na fu ne lu am solo foofu nga tegoon baaraam léegi waaw joxe da am solo lool lool lool ak li ngeen di wax ci wàllu sunu baay bu baay seex Ndoye mhm. man daanaka bu ma njëkkee gis benn uh, kiiw Facebook mhm. ñu jàllale ko ci sëñ Cheikh Niang sax wax naa ko ci damaa xaw a naqari lool ndax ñun dañoo nekk ay murit te murit moom daanaka tarixa la boo xamante ni ñëpp d'accord nañu ñoo dàq social. Mhm. social ak mën a jàppalante moo tax ñu maanaam ñu def lu ne. ay dàq ak jumaa lu ne. xam nga sëñ Cheikh Ndoye boo seetloo. bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax. Mhm. am na ci murit boo mu ngi déglu. Mhm. yàlla may na koy ay milliards. bu ci génnoon lenn loo xam daa war a taxaw sëñ Cheikh Ndoye. comme ay fissin ci moom. moom mën na koo saafara. maanaam nit ñi léegi dañoo mënatul def ngir yàlla. def ngir yàlla léegi dafa jafe te yàlla buy fay du fay jëf ji waaye yéene lay fay na innamal a'maalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa nit ki li mu yéene rek lan koy fay waaw kon comme comme comme ni ngeen ko waxee rek mbokk taalibe yi ñuy déglu ñëpp ak fu ñu mën a ne ci àdduna bi mhm. damay faral di wax waa États-Unis rek bu ñu dajaloon mhm. saafaral waa France bu ñu dajaloon mhm. saafaral diw mbiram moom kon te ñun ñëpp maanaam sëñ Tuubaa ñu boole yaa rabbi ijalil muridina maan fis ni kalasi wa sam lañ maa yàlla booleel ma murid yëpp ci benn jotaay tata dajalem te loolu li muy tekk dëgg-dëgg mooy murid bu ëllëgee fa mu ne kenn du leen rax ku dul ñoom dëgg la àjjanay murit ak àjjanay keneen ça fait deux mhm. ndax àjjanay am na fi daw seeg am na nangam am na nangam mhm. waaye àjjanay murit moom benn mënu koo féete kaw ndax leen rek tax mhm. mooy sëñ Tuubaa li ko yàlla jaral jaralu ko kenn sëñ Muntaxaa nee na wax naa ko te yàqul dara kon noonu la demee léegi nag boo xoolee joxe lu tax moom solo mooy sunu borom day jikkoom al majiid ku tabe ki bu fekkee da yor jikko jooju nag donte sax maanaam dañuy faral di wax ni ki kuy mooy yàlla bu fekkee day saraxee ka defi yëf yàlla loolu mooy dindi meram yàlla ñaari mooy dindi meram koo xamante ni tey jii day jël di dépenser alalam di ko jox ñu ñàkk ñi ak xale yi nekk ca daara ja di jàngal xuraan nee na yàlla bu doon mer am xol loolu mooy dindi meram sëñ Tuubaa dafa wax ni képp koo xamante ni da joxe dara wërsëg lu jëm ci jaami wala lu jëm ci liggéey sëñ beeg lu mën a doon rek yàlla dana la ko wuutal waxaay suma ak sarta fii talafa li wa ci axtaaka jàlla xalafa sëñ Tuubaa nee na foo fi dara rek lu jëm ci yàlla rek yàlla dala koy wuutal tey jii bu fekkoon da ngaa joxe tey jii koorug ren ñaari junni bu déwénee waajal mën nga ca joxe cent mille wala un million bu fekkee yàllaa tax nga koy def waaw sëñ Saali Mbàkke daan wax naan liggéey sëñ Tuubaa du ma ci yërëm kenn ndax damaa xam njëriñ ka sëñ Tuubaa moom loo ko mën a defal te yàlla tax loolu da koy wuutal moo tax benn magum taalibe nee na ma loo bëgg a bëri le rek jox ko sëñ Tuubaa bu fekkee ay doom nga gën a bëgg a bëri le doom doo jur joxal sëñ Tuubaa bu fekkee alal nga bëgg a gën a bëri le joxal sëñ Tuubaa xoolal see rafal yàlla ba mu ne inna allaha asra minal mu'minina bi anfusihim wa amwalikum bi anna lahumul janna saxaaba yi jaay na maanaam yàlla jaay na leen àjjana seen alal ak seen seen seen deret mhm. seen rafal ñaar yëpp la jëfe moom moo tax mu raw kullu góor yàlla mu raw ki ñëpp de kum mës a jur sëñ mortaala da cee gën a siiw ndax sëñ tubaa ko téye moom mhm. waaye mboolem njabootam jaar nañ ci sëñ tubaa mu tarbiye leen ñu jàll mhm. sëñ mortaala nag la sëñ tubaa téye alalam moom mosu koo fekkee ndax koo xamante ne li mu yoroon nee nañ ndar ba mu fi ñëwee am na juróom fukki bitig te bañ koy miiras doon nañ lu mat daanaka lu dul euh, maanaam maanaam cent francs maanaam ci ngurdu cent ci ngurdu kon kooku lu mu mës a yor jox na ko suñ Tuubaa kon nag moom laa Baay Faal bépp nag war war a roy ci lépp lu muy def léegi nag boo xoolee Masaalikul Jinaan li tax tey daanaka bayit bu maanaam ñu ñu ñu bayit yi bëree bëri ñu koy indi fii mooy suñ Tuubaa da leen cay defal ab bunt ci wàllu joxe boobu ngay wax dinañ la wax njëriñu joxe ak la may def lépp bokk na ca nee na watul xaddiisi anna anna zal jalaali yutqilu yowma alxammi wal aqwaali bi lumxatil xubsi wa uh, wa damtatil tamar wa kullu maa yanfawul miskina xadar sëñ Tuubaa nee na bisum njàkkare ba bisum tiitaanga ba yonante bi nee na ci xaddis ñii danañ dugg àjjana ñu ne ko ñan la mu ne ku jëloon am miisu mburu jox ko ab jullit bu xiif ku jëloon ab dogu tàndarma jox ko ab jullit bu xiif nee na ñii nañ dugg àjjana kon Baay fal kenn mënu koo féetale fudul asaabul janna ndax lii lii tax a dugg àjjana rek ci la ne moom ndax boo xoolee julli koor na rasaka aj màkka jaamu yàlla bu mu ci mën a doon yàlla boo ko defee laxal la lay wax peut-être amul julli moom fu ko yàlla tuddee moom day soññi nit inna salaata tanxaanil fasaan munkar wala sigla akbar wallaahi ax la maas noonu julli day fekk lu bon ak lu ñaaw kon ku koy def di sàcc yooyu da ngaa war a tiit yow kon yow yaa ngi weddi sa borom mm-hmm. ndax lu tax yaa ngi weddi sa borom borom dani ku koy def nu mucc ayib da ngaa a bàyyi yàlla tere mm-hmm. te yi ñoo ngi def la yàlla gën a tere mm-hmm. kon yaa ngi comprendre mhm. koor gii ñu nekk yàlla dani kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alal lazi min qablikum laxallakum tattaqun mhm. koor nit ki résultat bi mu ciy jëlee mooy ragal yàlla mhm. léegi nit ki nag bu ko ci amul koor kooram nanguwul kon résultat yi yëpp nag nga xaman dañ koy jëlee ci ibaadaat yi moom la Baay Faal du doxee man dafa am sax loo xam ne ma dafa xaw a am nu ma def ndax xam nga bu fekkee fukki weer ak ñaar bu may jël exemple nag ci Sénégal laa mën a jël exemple fukki weer ak ñaar day mel ni benn weer rek lañ jagleel diine. dëgg la muy weeru koor. ci la gaa yi. Mhm. di yeesalaat seen i taxawaay. Mhm. yeesalaat seen i pas-pas. Mhm. nangam ak nangam ak nàngam te man jàpp naa ne man. wallaahi lazim man koor. soppiwul sama doxin dara. wallaay yow ndax la ma jomboon laa jomb. waaw na ma daan def koor gi du ñëw ma soppi ci dara. dëgg xaw ma dégg li ma bëgg a wax. lu wér nga wax. léegi est-ce que foofu tamit. amul benn sew sew bu fa ne. waaw dara ngay gis premier jour euh, maanaam premier jour koor mhm. koo gis yére olof lay sol waaw koo gis mi ngi course mhm. koo gis mi ngi jàpp waaw maanaam loolu est-ce que sax du du taxawaat beneen taxawaay boo xam ne tuuti mu xaw a niroog naa fekk wala sax di jaamu leneen lu yàlla nag waaw loolu la de waaw xam nga Sénégal ñoom mhm. seenu jaamu yàlla comme ni nga ko waxee koor la wala ajjuma waaw te yàlla dañuy wa maa xalatul jinna wal insa illa liya'budun teg ca axarifuuni xabla an taxbuduuni fa in lam yaxrifuuni fa kayfa taxbuduuni mhm, mhm, mhm. loolu nag lool nag lañ xamut moo tax daanak erreur yi bëri di am yàlla bala nga koo jaamu da nga koy xam xam yàlla nag nekkul ni mu toogeek ndax jur na kenn kenn juru koog yooyu yëpp ay danger la li ngay xam mooy santaane yàlla ya nga fexi koo xam nan koy defee nga nekk ca tere yàlla nga xam ko ba mu nekk nii nga bàyyi ko xam nga koor tey jii fi ne nii démb rek maa ngi déglu benn oustaz mu koy wax mu ni koor gi ngay gis sawaay ab comédien ab théâtre kat ñu jox ko micro ci télé muy def waxtaanu diine Sénégal ni ñuy sabootee diine. fi ne yi télé am na ci tele yoo xam dañ koy def am na ci télé yoo xam ne dañuy télé bépp ay fecc lay teg ak i way onze mois. seetaan naa télé boo xam ne. waaw. maa ngi jégalu sax bu wax turu <laughs> ndax ci télé lañu. dëgg la waaye seetaan naa télé boo xam ne. <laughs> dafa mel ni waxtu ndogu. <laughs> dañoo indi lu ñuy woowee daara ji. ki koy animé. ponkalum jullit la. moo xam ne. am na jabar ci doom. daaw nee na ci xulaa onze bi rabbi naasi lay moom. ren muy weranteeg oustaz bi ndax mokkal nag xulaanzra bi naas wala déet dëgg la maanaam da ngay sax yow am gàcce biir tey tey na ma yàlla baal mhm. émission yi gën a mag yi ñuy bàyyi xel mhm. maanaam oustaz yi mhm. day mel ni sax dañ leen di xaw a euh, di leen fooye dëgg la ci wàllu euh, man nag damay jàpp man loolu du ko jiiñ sax animateur ba ndax ku nekk ak sa pas-pas waaye man oustaz ba laa koy jiiñ lu wér nga wax ndax man. Mhm. tey du ma jàng xam-xam. Mhm. am li nga xam ne mooy gànjara. Mhm. li ëpp doole ci diine mu leer na le lii. maanaam du ko jóg suñu borom def ko ci moom. suñu borom def ko ci man. nga war koo jàngee ci man may nag nga may foyee. du ma ko def am na question yoo xam sax du ko tontu. dëgg la wala bu ma la koy tontu yow di nga xam ne. yow li may wax ni yow la war. dëgg la waaye du lu ñuy foyee. xam nga xam nga sëñ Tuubaa ci fatul euh, fatul ma naan fi jaa Abdourahmane Lo loolu la wax nee na bu ñu demee ba mujjig bu bëri na dañ koy banaliser banalisation bi. Mhm. foofu lañ ne. Mhm. am na benn tele boo xam ne oustaz lañ fay teg. muy mhm. ak benn animateur nii di waxtaan. ay wa ndax man TikTok dama koy yër am naa ci compte. nit ñi di ma ci seetaan fu ne ci àdduna bi. waaye fi ne nii boo ko seetloo da ngay bëgg a jooy. ndax lan dañuy fooye diine. di laaj ay laaj yoo xam dañuy bëgg wan ne oustaz yi doo leen dara yéen ak sëriñ du dara yéen ak ñëpp a yem. banalisation yooyu képp ku ko moytul mujj gu ñaaw nga yem. te bépp borom xam-xam boo ne suñu dafa képp koo xam dafa am xam ba pare jëfewul xam-xam ba moom mbaam mi si bi téere ñooy am wa man xawaa xilman wa laysa yaxmalu fa innoo imaarun yaxmalu am na beneen bayit bu mu wax ci masaaliku jinaan wax ni inna allazina lam yaxsa rabbal alamin laysa bi aalimin wala af na funun nit ki bu jeexalee fànn xam-xam yépp te ñemee yàlla du borom xam-xam bu ko lim ci borom xam-xam yi moo tax boo xoolee sax rabbalee ci ci ay citation dafa wax ni science sans conscience nekk riwun de laam nekk riwun de laam waaw borom xam-xamu Sénégal nag ñu ci bëri ba jàng am xam-xam ak nekk borom xam-xam bokkut nit ki mën naa jàng ni a du borom xam-xam booluñ ko ci lisi ba bu fekkee jëfee na xam-xam bi te di di wax ci xam-xam bi loo xam nit ñi dañ ciy jëriñu borom xam-xam la waaye lu dul loolu moom bu ko lim ci borom xam-xam yi loolu mat a bàyyi xel la léegi nag boo xoolee maanaam njëriñu joxe ba tey ci lañ nekkoon ñi daan joxe boo lëgee naaj du leen tiim dañuy wàcce nag jant bi ba muy ba muy yuri manam maanaam maanaam yuuri waaw di baax waaye joxekat yi boo lëggee dañ leen defal ker ñoo ko axlu bayti ak yonante alayhi salaatu salaam sallallahu alayhi wa gis nga ko looloo njëkk moo tax mu ne fi zilli laha xablal xadaayil xalqi xasim fatlaha joxekat yi dañ leen di keral boo lëggee duñ gis naaj wa annaha biha taduurul marda wa tuxfiru zunuba nex ma xarda joxe nit day am feebar feebar boo xam docteur mënu koo faj boo xam mënu koo faj joxe addiya moo koy saafara ndeysaan sëñ Cheikh Fall Baye Góor nee na bu joxe dee tax a ñàkk ku watoote dootoo sax karaw dootoo sax karaw nit ki buy joxe nit nit nit ki buy watu mm-hmm. buy sax karaw da koy bett mm-hmm. Mm-hmm. ko ni ko noonu la demee léegi nag am na feebar yoo xamante ni sarax koy dindi wala joxe addiya ba pare wa tuxfiru zunuba joxe day dindi bàkkaar damay faral di wax ni am na bayit bi suñ koy wax ci wakaandaxan bu fekkoon am mbubu la bu koy sonal Baye Fall la jot waa Baye Fall képp lay jot mooy suñ Tuubaa fi muy waxee ni yàlla bara anil illahu min shirki wa min kulli nifaan wa sax damin yàlla dañal na ci Baye Fall yi bokkaaleeg naafiq moo tax war na leen àjjana Baye Fall mënta naafiq Baye Fall mënta bokkaale ndax laay laay laa la soxoo te dana wax ne nit ki buy jaamu yàlla lim ciy bëgg mooy mujjanteelam kàddoom buy jóge ci àdduna wax laa ilaaha illallaah te Baye Fall loolu la soxoo kon buy faatu mënta wax lu du loolu kon nee na kon nee na joxe addiya day day day saafaray bàkkaar ba pare nag tatilul maala wa tatful balaa wa kullu amraad wa fi a yuj talaa day laabal alal usines yi kay dégg tàq nañoo barabu commerçant nga di tàq duñ génn asaka duñ joxe addiya duñ duñ saraxe lii tax ñu sarax mooy ab bu buxaaba moo leen boo leen defee nii di leen fegal dee wala da leen defal nàngam loolu nag di nga ci am loolee waaye doo ci am yàlla doo ci am yàlla waaw kon day laabal alal ba pare day jaj balaa ak bépp feebar boo am dana نيد وسعه الرزق فيها وبركه مال وامن من جميع مخلقه وخيفه الاساب يوم الكرب وسيخه الميزان فلتحسبي ثم على الصراط تخفي الجواز ورفع الاخلاق درجات في المواز نانا كو بغا بري لا ورسك ديل جوخي اديه ديل جوخي ديل جوخي سنيام دي خدي بام دالاي جوخي با تاي ديفنا دا يوك واي واني كول دا يوك واي واني كول تلي غنو دوار sëñ di Xadi ak ku mu mën a doon ci sëtu Seera Faal yi ñoom kenn koo ci gis amul kër goom tabaxal na ko boppam ba bam impact nit ñi du ko yéem kenn ku ci ne ba tey ji sa kër wayjur nga ne te defaroo ko barki déem boo njaay këram gii laq moo tax ñu yeesalaat ko waaye bu laqul loon kenn du ko def nii lay ne baraagi te koo xam day jox ay ndog yoo xam day ëpp ay centaine de kon kooku ñooñu ñoo ñoo ay nitu yàlla la yàlla jaral mm-hmm. waaye ñun ñi nga xam ne dañoo am ay compte sa waaye def ay këri rafet ak oto ay rafet di tukki fu mm-hmm. ñoo gën a ragal yàlla mm-hmm. ñun sell ñu kon ko kon kon bokk na ci joxe isaab moom nit kenn ku ci ne ku yàlla bind da nga ca jaar waaye kuy joxe doo jaar ci isaab bisum jàkkere ba ñi daan joxe ñëpp dégg nga suñu baay bi sànq li mu wax nee na ñi daan joxe yàlla bu leen wooyee ñoom dañuy dem directement na kon duñ fekkee ñoom yow ma taxawaay ba ñuy àttee nee na ñi nga xamante ne dañ daan joxe bu ñuy bu ñuy jéggi siraat day gaaw xam nga yaa dégg sànq mun la siraat maanaam kii bu sew la xur boo xam da nga dox lu mat ay junni ñu demee noonu nee nag mi doon joxe da ngay mel ni ab boo xam daa jóge fii tey bëgg dem gàmb gi day gaaw ci mu kon joxe lu am solo la mm-hmm. te maanaam ñun suñ sëriñ yi war nañoo war nañoo doy maanaam référence mm-hmm. ñoom ñi nga xam ne bu koor gi jotee daanaka luñ am duñ ko fa bàyyi mm-hmm. lu ñu am dañ koy joxe dañ koy taal maam seex Niang mi nga doon wax nettali na ma neena sëriñ si léeg-léeg da ngay gis sëriñ boo xamante ni day joxe ndoku joxe ndoku ba lépp ay nag koor gi bu jeexee la koy lijjanti koor gi bu jeexee la koy lijjanti xam naa nag bu bunt boobu matee rek waaw ndax ñi ñuy signalé ne waxtu yi léegi <laughs> waaw waaw sëñ sëñ Saliou Touré bu Thiès mm-hmm. daa am bis boo xamante ne ndeysaan da koo wax ay taalibeem ni leen màggal Tuuba bépp murit loolu nag tolluwaay la tolluwaay daa bokkul murit gi moo tax laa ikraaha fi diine bul forcer kenn yow sa tolluwaay boo ko bëggee wan keneen koom toll foofu day metti dafa wax ni màggal Tuuba bu jotee murit yëpp war mi mira seen bopp mu ni man Saliou Touré de màggal Tuuba jot màggal Tuuba jot te ma ñibbisi ñëw Cees amuma fi bor màggalu ma damaa taxawaale ji woon bu ñëwee saa su ne borom nag yi dañ koy kii sama xaalis sama xaalis te loolu pas-pas la dëgg la moo tax kon jàng baax na lool jëfe jàng baax na lool waaye ñàq alal joo xam ne dafa dagan nga def ko ci yoonu yàlla moo gën a wóor kon yàlla ñu yàlla saxal si loolu amiin barke amiin amiin amiin xam naa Ousmane eh, maanaam eh, fii la ñuy daanelee yaakaar naa mooy dine eh, maanaam comme tey jàngkat bu mel ni man ak yow ak jàngkat yëpp yàlla dogal ñu mën a wax ne ay acteurs culturels lañ ñu mën a wax ne eh, eh, maanaam ay artistes lañ sax ndax kuy fent rek artiste nga te yooyu yëpp nag li koy def ñu ma ko waxoon sànq wér ak doole koy def mu mel ni nag eh, ñun desee nañoo waaj donte nag suñ borom mooy dogal maanaam suñu ëllëg ci wàllu am këyit yoo xam ne day melal bu nu jaaxlee gis ñu ñu taxaw hmm. am kayit yoo xam ne day melal bu amee bés hmm. maanaam eh, ñi ci war a jàpp jàpp ci muy lu mel ni état bi yenn di ci aju hmm. ndax tey eh, télé bii sax pour mu am division dafa am fu mu jaar ak état daa am kayit yu mu am ngir mën a lii mën a ne kon day mel ni ñun am na lu war sumu digganteeg état mooy booloo am ay association am ay amical wutal ko ay kayit ba mbooleem lu nu jaaxalati maanaam li suñu moroom yi di am ci saayir ñu mën di ko am loolu tey ak fi ñu waxtaanee ci wàllu social ana ban message bi ci mën a lancé waaw message bi ma ciy lancé bas xanaa daanaka yow sax mën nga ko wax ndax yow waxoon naa la fii ne la amba ambassadeur nga ndeysaan ndeysaan ci jàngkat yi ak ci Cheikh Rafal sëñ Baara alhamdulilah nag su ma ko waxee waxuma ko ngir lu la neex parce que bu nu limante woon ay at mhm. man naa ma mag la mhm. ndax quatre laa mhm. maa ngi sama ñeent fukk ak benn kon man naa am ba may tudd yàlla ba léegi xamante wun kon du lenn loo ma defal lu tax ma war laa waxal loo xam ne gëwuma ko waaye li ma gis laa wax ndax damaa gis mu jaral la waaw damaa gis yow lu baax jaral la lu ne te loolu nag na nga xam ne kenn du ko def maanaam sëg mujj te doo am la nga bëgg ne la nga am la nga bëgg incha allah rabbi ñun ñëpp yàlla dana ko defal waaye comme daanaka loolu moom mel na ne yow sax euh, dox nga ci ab jéego mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ndax yaakaar naa am na mbootaay goo xamante ne bii ci foofu la tënku nga xam ne la ma ci gën a neex biñ ci toogee waxtaan nga nga jug dox ci ba ba yàlla def ci jàmm néwoo lu doon muridi rek la waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraxu maanaam da indi jànkati murid jànkati tiyaan xaadir laayeen ba fi ne yaakaar naa ne yi fi sori na te loolu lépp bëgg lii nga wax nii ñu ñu ñu dox jëm ci moo ko waral ba avancement am na ci kon nag euh, ginnaaw maa ngi gis ne ñi ngi signalé ne waxtu wi dafa dafa dafa dafa xaw a xocu te it euh, jaadu na dañuy war a defi leneen foofu dañuy tënk foofu dañuy tënk foofu di wax ne képp koo xam ne nii suñu borom dogal na nga seetaan émission bi jàkkaarloog sëñ Bass wala nga jot ma téléphone loolu muy waxtaane noonu la seer la la sëñ Cheikh jëmb waxoon ne na ngeen dox daw jëm ca jàpp naa ne loolu day soog a jot ñu dox daw jëm ca te jàpp naa ne dinañ ci am ndam ndax euh, dinañ ko yóbbu soraanu incha allah rabbi te fas nañ yéene bu soobee yàlla ñi ci bokk ñëpp danañ ci gis seen bopp te dinañ xam ne incha allah rabbi ndegam ñi def góos ñoo man di faj aajo mm-hmm. ñii def jubaat mm-hmm. doona war di faj suñu aajo di faj seen aajo ñoom ndax li yor mooy li nga xamante ne bii tey mm-hmm. mooy mooy njariñal tey ak njariñal ëllëg kon yàlla nu yàlla defal jàmm ñu bokk fi dajewaat ci darajey sëñ tubaa xam naa bu fekkee ne kii na noonu daal ñu tënk ko noonu rek di la kii at ba xam waaw wala noo bëgg ñu tëjee ko rek euh, comme kàddu gi euh, maanaam dañuy signalé nañu waxtu jot na xam naa Baye euh, maanaam li ñu bokk tënk ci jëwriñ li mu indi ak li sëñ Ousmane indi ndax dañuy seetlu ne ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu ne ci saayir di yëngu ci ay xeetu musique ak yeneen ci aju fexe nañ ba am ay mutuelle yoo xam ne ku ci feebar ñu mun laa faj seen i àq ñu fexe di ko jot te ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu nit xëy ñoom li ñuy def ñu di ko def ndax way moom way la rek ndax maa ngi koy wax sànq benn soxna ne ko jëmm moom eh, maanaam lekk ak naan ak faju ak yeneen ci aju moo koy dundal waaye nag ruux moom mélodie moo koy dundal mélodie maanaam ay way moo koy dundal bu dee musique la ndax dama ko fekk mu nekk ci koor bu na di déglu musique ma ne ko ah yow sa na di mu di dara ndax du ma def dara ma ko déet dina la def dara da nga du yëpp li mu lay def ndax booy continuer di déglu musique bu yàggee di nga bëgg a def lu baax mu tëral waaye booy déglu ay xasaayit wala ngay déglu alxuraan lu baax dalay yomb kon yàlla yónne yonent boo xam ne way la ko joxoon muy muur ci loolu ana loo ci mën a indi bàyyi bàyyi waaw jërëjëf xam naa dafa toll gannaaw waxtu yi xaw dafa tënku ndax gaa yi ñu ngi soññoo baax wax xam naa li am solo mooy ah di ngeen góor lool de ndax bor bi ngeen fóote tey tey ëllëg te gaa yi waa tey lañu àndal te kat yi lañu yor eggul bàmmeel te itam li ci doy waar mooy amu ci kenn koo xam ci waa waa góos ñu ko waa sëñ waxee léegi la ngay dox la ngay la ngay la ngay dunde di ko mu doon sa métier soo dee kenn du wax sab dëj kenn du ko xëb dëj akamaanoo football dee su wax ci dëj bi akamaanoo way dee su wax ci dëj bi akamaanoo théâtre dee su wax ci dëj bi akamaanoo bëre kenn du wax ci dëj bi te ci doon dund yàlla nag mooy buur yàlla xam kon waa saa yéen nag ñooñu ñoo gën a kii ci ñoom waaye na xanaa ngir ngeen góorgóorlu rek yàlla mën leen ci jàppale ndax ñii mi ngi benn école bi na école nasaraan bi rek fi ñu toll mooy mooy àll nguur gi waaye fi ñu toll ñi waa daari alxuraan yii daanaka moom yàllaay buur xam naa daal kon li ci des dañ bàyyi ba dajawaat fi rek waaye ñu xam ne rek man benn kii laay joxe benn waay boo xam ne jaamu ko te yàlla juróom-ñetti at juróom-ñett fukki jaamu ko yàlla jaamu yàlla goo xëy fonk na ko ba mu doon juróom ñett fukki at mu wàcc fekk ku ci kaw jàkkaam wala église bu dee comme ràbbe la wàcc ci kaw suuf yor woowu aw mburu booba tam xiif na mënu ko jëfandikoo yàlla dogal mu dajee ko ko laaj mburu yi mu jox ko ngir yàlla ba loola jàllee mu def benn bàkkaar benn bàkkaar lay wax mu def genn mooy yàlla mooy yàlla góogale maanaam ba mu faatoo ñu peese jaamu yàlla juróom jël juróom ñett fukkat yam doon juróom ñaar fukkat doon jaamu yàlla teg ko ci balance genn mooy yàlla ga wat jaamu yàlla ga jaamu yàlla juróom ñaar fukkat benn bàkkaar mooy yàlla wat ko mais mburu woom mburu joxoon ngir yàlla ñu teggi ñu teggi jaamu yàlla ga teg ko ca balance ba mot mooy yàlla ga ngeen mburu mu joxan ngir yàlla kon dimbali tey ngoog ngir jëm yàlla kon sëñ Mor Jaañ Tubaa nuyu naa la yaag sa waa kër sëñ Mbay Si la ñu kër sëñ Tubaa yëmbal sëñ ma eh, Masamba sëñ Masamba Diop imaam ba siyaar naan baax a baax ndax di bàyyi xel émission bi eh, Ndey Ñang Daaru Salaam Ndey Géey Daaru Salaam bëgg sëñ Gaawan siyaar naa la nuyu na ñëpp siyaar na ñëpp sëñ sëñ jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf eh, macha allah Baye Jamil kon ñu leen fàttali rek na leen émission talaatay Cheikh Ibrahima Euh, maanaam bu dee koor gi euh, treize heures lay tàmbali euh, ba quatorze trent trente maanaam ci lañ koy def mu nekk en direct ci télé bi incha allah ñu di ko bàyyi xel waa xam naa nag bu ñu xamee ban waxtu lañ koy rédiger dinañ ko yaatalaat ba ñëpp mën ko bàyyi xel jëwrin xam naa kon nga tàggoog bokk taalibe yi rek agasa kon fi ñuy tàggatoo mooy di leen sant rek ci teewaay gi ñëw fii xaw na noo bett nag waaye ndigal ndigal moom bu xasee bu jóg am murit moom warta defi leneen lu dul dem defi loolu rek comme ni ngeen ko tënkee rek tamit noonu la amee solo comme yàlla dafa am asaabul yemi asaabi simaali asaabu yemi mooy waa ndeyjoor mooy ñun ñi am bu ñu lekk ndeyjoor dañuy lekkee ci la ñuy bindee suñu bind it buy jëm alxuraan ndeyjoor lay jëmee côté boobu ñoom it war nañoo woy ci li ñu def comme ni ñu ko waxee maanaam am am am am am am lépp loo xamante ni daal da leen da leen da leen dimbali. Mhm. te leen jëriñ ci wàll wa ñuy def. Mhm. ndax àdduna moom toll nañ jamono joo xamante ni ne nii lu nit di dund rek. Mhm. jamono da tollu fo xamanteni warna wala warna tollu ak jamono wala sax mu raw jamono mhm. waye comme suñ tubaa lañu àndal moom nan gën a jàpp rek te gëna bayyi baña bayyi yalla nañu yàlla dinañu gàttandu rek ñoo ngi siyaar nag waa ndak ak wa yarax gamu joge mhm. di sant sëñ mam Cheikh Ñang mi nga xamanteni mhm. ci manam ci mom la sabe bi ma teew fii waaw di di siar sama soxna ak ak sama wayjur ñepp rek di tuub nak ci kàddu yi nga xamanteni mom lañ fi jallale lepp lu ci deung rek ñu ngi koy jéggalu li ci jóge ñu sant ak suñu borom subhanahu wa taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatulah ndeysaan jërëjëf eh, sëriñ Serigne Ngom euh, xam naa nag di siyaar bu baax euh, Serigne Moustapha Mbacke moom euh, Serigne Cheikh Faty Lo moom Serigne Cheikh Faty Fall moom maam Thierno Ibra Faty Mbacke nga xam ne dafa am digalu ci sëñ Muntaxa maanaam fulkul maçon di ko def weeru koor u jot fële ca géejuwaay xam naa nag yooyu waxtaan yooyu yëpp dinañ ci mos dikk bu soob yàlla kon di ñaan rek sëñ Moustapha suñu borom defal la tawfeex waye nak defal ko sa mag bu baax ji sëñ koso gaynde borom daaru sëñ Ousmane xamna nga taggo mbok talibé yi rek ba noppi yëkkati turu yalla ñu yëkkatee ko jotaay bi comme ni ko ado defé defee jërëjëf di leen sante yeen ñëpp di sante euh, réalisateur yeen ñëpp rek caméraman yeen ñëpp ndax ma ngi fi bëgg min ta ñu baax rek fa ne yalla na yàlla defal leen jàmm di siyaare baax sama wajuru goor wa nga xamné jitu na barsaq man ci daaru salam mhm. di ñaan suñu borom yeesal yërmande ci kawam ak mbolem ñam fa fekk ñuko fekk sama wajuru jigéen wa ci touba sun borom yagal ko fi mhm. ak samay soxna Eh, ak ñima ci bëgg doli ñom ñepp yalla yàlla suñu borom dogal ko ci barkeb cheikhul khadim mm-hmm. di ziar bax bay jamil ak mbollem ñi fi tew ñepp mm-hmm. di ziaré bax sama serigne serigne Modou Mamoun ci daru salam mm-hmm. soxna mamou Anta ak mbollem ndax liggey bi ni liggey dafa am solo kon waris na koy tuddu di wax di len ñaanal serigne Fallou Silla ci ciaro yi fa ngay may fekk maa ngi koy ziar bax ak soxnaam aladji ndjay soxna Fat Diop mi nga xamne ni ak fa ma dëkk Mor Ñang bay Fall sama xarit na ah, mbooleem ñëpp rek ah, Fat ak Sam Sam fa ma dëkk ngi leen di ziaré bax nak Badou Saw soxna soxnaam di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex barke Cheikh Rafal macha allah la ilaha illallah ndeysaan